Ajara Ndiaye bu yegsee fii moom mu tontu leen boppam dinañ ñëw it euh, ci euh, ci la ñu bokk ci la ñu bokk nag Maam Jaara euh, daf ci war a wax loo xamante ne nii handicap la ak it mbirum njaay mu nekk loo xamante ni ñoom it dañuy faral di yëngu ci secteur informel bi te yenn saay da leen di yitteel loolu ñu considérer leen gën leen revaloriser bañ leen stigmatiser donc loolu moo tax Maam Jaara dina ñëwaat moom it ci kanam tuuti daal di yaatal loolu nga xamante ni moom la ñu tànnal tey ñi nga ñooy euh, waa euh, mouvement beaucoup ko beaucoup je pense que c'est bien ça di wadjal ap euh, randonnée verte randonnée verte nak ñu depuis, euh, ñu ko nara amal euh, ci fan yi di ñew waye it ñu nar ci tan grand prix citoyen modèle ki nga xamanteni nak modi Khalil Touré moy coordonnateur bu mouvement boobule dinañ dellusiwaat ci xew-xew boobu noonu euh, randonnée verte mom amna solo ndax bu ñu environnement ñu bëri dañuy yaakaar dekk la mais amna ponk yu bëri yo xamni lal na environnement au delà de suñu entourage immédiat war nañu gëna bayyi xel ci suñuy jëfine ak it suñuy doxalin mu jëm ci alam bi ak yenen ak yenen dinañ ci ñew ci kanam Papfal, euh, Pape Fall déchargé de communication Arcos Pekin, Momit Mingiti, plateau B, drame éducation de Pologne forme Arcos Pekin à la maîtrise de la langue française formation la ñu wax renforcement de capacité lan moo tax nag ñoom ñu tàng tànn langue française moment bi nga xam ne ñu ngi wax promotion de langues nationale yaakaar naa ne moom it ci kanam tuuti euh, dina ci ñëw indi ci ab euh, tontu Alaaji Saala Bigé di suñu papa nekkit moom it ci plateau bi day am solo saa su ne mu ñuy bungee ndax day dalal suñu xel bu ñëwee en ah, conseil yaa ngi fi jàngat gaa ngi fi waaye it ngeen mën ci jëlee njëriñ loolu daal mooy ponk yi nga xamante ni nar nañ ko yaatal ci toi même tu sais di ci profito euh, di sargal ñëpp ñi nga xam ni ñoo juddu ci bésub tey bi ndax am na solo am na si ñoo xam ne dinañ ma mere ndax fàtte tur bi lu ñu bëgg a jàpp si journée bi day metti waaye ku ci nekk rek na xam ni suñu xel a ngi ci yow ñu ngi lay ñaanal yàlla yokk la wér yàlla euh, yokk ci lépp loo xamante ni yaa ngi kiy ci lu baax te mu doon lii gën si ñëw jàngeen jëf loolu noonu ñi nga xam ni daal bësu tey bi ñoom lañ ko euh, jagleel ñuy jàll ci actualité bi nga xam ni moom lañu Kat ki bosum taibi narko ube na ka suu emisyonñu ka yo akib legileg. taala nak tay actualité de l'internet dañu dañoo tàmmu njëkkee ci euh, Seneweb muy wax euh, ci inhumation ayof euh, la famille de Sidi Lamine campe sur sa position mu di xibar bu ñu mëna gis foofu li tax ñu tànn lu ni mel rek ndax ci xelu askan bi amna jixi jaxata ci biir article bobu nonu di ngeen gis kaddu yi nga xamni domam bi di Cheikh Niass yëkëti nako ndax nee ñom si en tout cas bañu mujjé waxtaan lañu tënk mooy papa dañ koy denc fële ci cimetière musulman bu yof te loolu ñu dégg te nar loolu ñu déggoo te naruñu ci dellu ginnaaw nag mu di kàddu yoo xam ne yëkkati na ko gannaaw ba ki nga xamante ne ni nijaayam di Ahmed Khalifa Niass yëkkati na yeneen i ponk démb di wax ne rek kii di Sidi Lamine daañu ko denc fële ca Léona Niassène mu di loo xam ne indi na jiixi jaaxa ci xelu askan wi moo tax tey nag ñu gis ko ci xibaar yi ci internet bi waaye it ci site yu bëri ñu tànn ko tey daal di ci nar ñëw léegi léegi rek ak ki nga xamante ni moo di per Sala ni ma ko doon waxee sànq. Euh, lu mel nii buñ ko gisee ci kilifa goo xamante ne nii euh, ba mu génnee àdduna ak léegi defagum na ay fan te am na lu diine wax ci euh, doomu jullit bu génnee àddina dëgg la ajara ñuy wax toujours rek inna lillahi wa borom bi ñu joxoon si Lamine Niass moo ko jël moo ñu ko gën a soxla bi ñu koy jox bi ñu koy jox tàgguwuñu bu koy jëli tàgguwuñu li ñu mën mooy ñaanal ko yàlla na yàlla yokk ay leeram mais nag lii du lu bees ci àdduna maam Cheikh Abdou Khadir Jeylaani da nga dégg sax ñu naan jili borom Baxdaad borom ñaari bàmmeeli ci Baxdaad li yàgg na am lu baax yàgg nañ koo xëccoo parce que famille dafa sensible mhm. ku ci nekk sa famille di nga am nit koo xam ni bu jógee ci yow boo sañoon sax dañ koy suul sa biir nekk ndax maanaam cofeel goo am ci moom ak tolluwaayam ci famille Sidi Lamine dafa toll noonu ci famille moo tax ku nekk nii lew na ñaseen ku ne xam na ne moom mooy dëkk ba nga xam ne fa la cosaanoo muy mhm. cosaanam ay maamam ay baayam nekk fa mais jamono dafay dox ndax yàlla dani maa leen wàcc ci kaw suuf ku mu neex bu fekkee yaa ngi tëdd dund ci benn suuf boo demee ba mën a xalaat ni mën ngaa dem beneen suuf nga dëkk fa tamit inna ardullahi waasi'un suuf yàlla dafa yaatu ku mu neex sama suuf yaatu na boo nekkee fenn ba xam ne fii mënatuloo fee nekk maanaam ci mettit wala ci koom wala jafe-jafe àdduna am nga droit dem beneen suuf mhm. moo tax la plupart ñu jógee Kajoor Bawol Siin Saalum ñu ci bëri 90 pour cent bi yëpp seen i sët ñu ngi ndakaaru ndax ndakaaru mooy capital loolu dafay am mun naa nekkoon kon dañuy jàpp ne Sidi Lamine cosaanam mooy lew na ñeseen muy Kaolack Saalum mais boo dee xool fi mu nekkoon mooy ndakaaru mhm. muy Sacré-Cœur ak peut-être am na yeneen kër ci ndakaaru mais am na fi mu doon li gën a mooy fii Walfadjri nekk donc njabotam gii fi juddo man damay japp ne dañuy bëgg rek seen papa nek seen wet buñ ko bëggee ziari ziari ko ndax yoof mo gëna a fi ñu nek man dama japp ni lool rek la ñi ñe tamit amad Khalifa ñes nga xam mok si Lamine ñoo bokk nday ak bay papa la ci wa kër Sidi Lamine seen papa la mm-hmm. bon mu nek lo xam ni ki bëgg fu mu fanaan ak ki bëgg ko wétri tejeul buntu waru leen a boole dama yaakaar ni mbirum famille la parce que lo ci mm-hmm. wax aussi na doon lo xam ni maîtriser la parce que dafa sensible mm-hmm. ñun ñaan rek la nu mëne dañuy ñaan daal ñun en tant que citoyen en tant que jullit en tant que koo xam dafa nekkoon ci ñun liggéeyal réew mi loo xam ni kenn du ko fàtte Sidi Lamine mi ci biir ci ay kàddu ñu yóbbu ko fii ñëpp d'accord ndaxte jullit wax dëgg yàlla taamuñ ci mu génn àdduna ñu koy bàyyi ay fan te mm-hmm. denc ñu ci côté boobu rek la ñu mën a waxee mais li ci des mbiru famille la te xam naa ni ñàkkul ñi ngi waxtaan ci seen biir te xam naa ni solution dina am mais nag li ñu ci mën mooy nit ñi ñi buñ ci bu ci kenn wax naka sudul ku ci nekk rek na nga wax wax bu rafet ñaanal ki dem mais jullit bi daal bu génne àdduna li ñu bëgg ci jullit mooy nañ ko daal di gaaw denc jébbal ko suñu borom mhm. kon nag mbir mi mi ngi bëgg a yàgg talaata ba léegi wax dëgg yàlla ñi ngi ñaan daal nanu gaaw waxtaan juboo ñu denc ko denc bi gën a rafet un man damay ñëw euh, traitement euh, journalistique bi ak yow da ngay xey dégg ñu ne la tànn nañu bërëb bi duñ ci euh, une heure de temps ñu ne waa tànn nañu bërëb est-ce que ñu en tant que xibaar jotul ñu xoolaat suñu bopp ci njëkkantu bi ci jaay ma am primauté de l'information ba muy jar des fois nga wax loo xamante ba léegi amul lu leer merci beaucoup dafa mel ni nga dox sama xel foofu laa bëggoon bi nga xam ci laaj mm-hmm. ma communication benn bala may ñëw ci rôle journaliste bi d'abord la famille en tant que telle du du ma wax ne xëy na li laa leen digal mais conseil xalaat bi may joxe la que ni ñoom li ñu war a def mooy toog tëju waxtaan ci seen biir ba noppi ba tënk lu leer soog a joxe information bi. mais mm-hmm. bu fekkente ni dem télé bi micro bi ñëw nga wax li mooy am li mooy am kee tam jël télé bi wax ne lii du am loolu. maanaam discussion bu waroon a am à l'interne moom la ñu tax li naan póotum biir nekk mhm. loolu moo waroon a am ndax lépp lu xew ci biir njaboot waxtaanu biir nekk moo koy saafara bu demee ba ñëpp am ci yoon rek damay jàpp ni foofu njuumte am na xëy na du ñàkk daañu ci bàyyi xel lu ci des mooy taskatu xibaar yi booy xool fi Sénégal njëkkante bi mhm. day dem ba doo xam sax fan kan moo am dëgg la bonne information bu rombee la presse comme ça les radios les télévisions y a aussi les réseaux sociaux ñoom itam tout le temps ñu ngi toog yor ab clavier am cak cak cak daañu ko enterré tel tel cak cak man fi bi may bi may yëg information que dañoo annulé li nga xam mooy mooy levée du bi sama kii laa taal Facebook gis benn waay daal koy posté ma ni waaw non léegi gëm ma ko mënta nekk. Fall ma gis suñu correspondant ba fa nekkoon Abdoulaye jaay joxe information ma ah kon lii confirmé na mais loolu dañuy war a waat xel bu baax la presse am na information yoo xam joxe ko. du information du yàkkamti mhm. nan def ndànk des tama des fois tamit xëy na ñu dem ba yóbbu leen ci loolu génn nga laaj kii kee wax nga laaj kee kee wax fekk na kooku sax nekk suuf bi nga xam moom nga war a ressourcé wu dëgg pour mën a am la bonne information da ngay war a xaar kilifa gi war a wax nga dem ci moom kooku jox la nga wax nga xam boo ci diviser sa information ñu xam ne am nga ay sources sûres mais des fois yàkkamti génn rek gis kenn koo xam kaaloo na taxaw nga ni waa mi ngi bokk ci famille bi nga jox ko micro mu wax fekk li mu wax taxawul boo ko diviser à la à la fin looy dégg wala li mu waxoon amut leneen moo am. loolu moo mhm. tax gars yi tollu fii. ñu ñëw ci euh, sëñ Pape gis nga yow it euh, actualité bi nga xam ni fan yëpp mën naa ne mooy tenir en haleine euh, képp kuy téléspectateur auditeur wala sax nga nekk lecteur journal bu mu mënta doon. Mhm. ana tey yow jàngat bi nga si def en tant que citoyen ci gis lu mel nii. waaw d' abord di di am lu mu metti lool nag. di jaale Sidi Lamine Sénégal gépp naturellement dem bi dina nu metti mhm. mais li ma gën a metti mooy. ma réaliser ni tey tey wala depuis démb laa doog a gis siidi ñu defal ko lu mënul boppam waaw siidi lu mu man ak lu mu mënul moo ko daan defal boppam mu saxaar kenn ci dara nanu tey nanu dal nga bu yu mel ni amee ci réew kilifa gu mag jóge fi dimension siidi kenn mënu ko natt gàcce laay am c'est son œuvre mhm. immense mhm. Sidi dafa làqu mhm. préserver Sidi Nous pour des générations et des générations lan nous nous dund Sidi polémique y a des trucs exclusivement familial Nous nos ñoom si famille régler mais nanu xam ñoom aussi que ni Sidi Lamine ñoom moomatuñ ko. Sidi Lamine ñëpp la. Sidi Lamine ñëpp la. Mhm. il faut que ñoom ñu am ñu am ñu am dal gi. Mhm. te xool ci moom nit ku amoon kersa la te Sidi musul defal dara boppam ndax boppam mhm. waa ki nga xam ni àddunaam bépp daf ko daw daf ko tumuranke daf ko misère pour njariñu nit ñi pour pour pour liberté nit ñi. ko ko loo ko rendre après sa mort lul tel ko jébbal boromam payonaat bi xoromam mhm. il faut que les gens se reviennent à la raison man ça me fait très mal que l'on polémique sur euh, la mort de Sidi au lieu d'en tirer des des enseignements Aliou ñu ñëw si rek ci quelques kàddu rek yooyu ci mën sànne euh, waaw man euh, damay rejoindre rek sama frère bi di jaale Sénégal gi yëpp si Lamine Niass si la Lamine Sénégal gi yëpp la moom sentiment yu am rek moom laa am très sincèrement hein, je suis vraiment attristée si situation bi c'est hein, la ministre euh, mérité ou quoi, mm. hein, vraiment euh, di ñaan rek mu mujj si jàmm mm-hmm. ñu ñaanal ko sunu borom euh, xare ko àjjana te yokk leeram jërëjëf Khalil Touré xanaa di ci yokk rek xam naa persala du duma du weddi wala boo ko dina dëggal li may wax dañuy faral di gis bu yenn kilifa yi génnee àddina lu si ëpp bokk si yenn kër diine yi li may gis dañuy denc ba pare doogaa yëgle hmm. ah euh, yaakaar naa yu mel nii euh, day baax tamit ñuy sóor lu mel noonu hmm. ndax euh, kër diine la avant tout avant muy nekk média wala yeneen donc day baax ñu bàyyi xel loolu ndax image bu ñuy refléter encore une fois ci taalibe yi ci njaboot gi ak ci biti dafa am solo exemple la pour ñu bañ ci ñu bañ ci répété yu mel nii di ci bàyyi xel rek sóor ne ah, ah, lii xëccoo bi yëpp amul solo man damay faral di wax kii nekk fii ba nekk dëkk beneen bu mu mënta doon oto boo taal léegi dem fekk ko jege na soriwul dara kiiwul donc fen soriwul nañu waxtaan seen biir rek euh, rafetal lépp moo gën a am solo bu ko defee euh, kenn du ŋàññ wala kenn du ci wax loo xam ni maîtriser woo ko ñu jàll ci beneen actualité bi nga xam ne euh, fës na yit ci internet bi bi yoon ci Dakar Matin kii di Sayar Kebe dañu ne dafa doon jéem a xaru Sayar Kebe nag benn ndongo la woon Euh, école Demba Diop lycée pardon Demba Diop il fofu nak la don jangé ñu jiñoon ko apologie terrorisme ndax dafa bindoon ci Facebook

fësaat euh, ci ka bu ni mel kooku nak euh, nenañ nañ door na ab grève de la faim Sayer Kébé ci altiné bi te mu ngi koy wëyal di xaar ñu jugé ko mam Diarra si yow lay ñëw yow mom comme yay la voix des sans voix te souvent bu ñu la bo indé sujet rek injustice encore une fois ngay euh, décrier Sayer Kébé 21 ans la amone doon def terminal tay ma nga xamu ñu ndax mo def wala déet waaye dañ ko tumal te ba légui kenn jugé ko. loolu day waral bokkuma ci moo ko gën gis nga réseaux sociaux yi man dama ko xaw a ragal nit boo nekkee xale nga nekk sa lycée di jàng jàngal bul dugg ci yenn yi ay poste ay kii yooyu yooyu bu ci dugg ndax li ñuy wax naan ndogal kenn xamul fu muy jóge mhm. mun nga xëy sa kër yeewu ci jàmm génn sa kër dajeeg ndogal yàlla rek moo xam Euh, comme bu bu fekkente ne toll na foofu bu bul bul bu mu ko cherché ndogal kenn du ko kenn du ko uti. Mm-hmm. Euh, li may wax nag mooy di may ñaan rek ñu jugé ko ndax xale la te xale ndaw yi ñooy yaakaaru Sénégal ëllëg euh, nañ ko jugé bu dee moo def ñu xam bu dee deful tam ñu xam grève de la faim bi yi nga xam ne moom la entamé man dama naan grève de la faim fajul dara nañu ñaan rek taala suñu loxo ñaan ñu jugé ko ñu xam ndax moo def wala def mm-hmm. sëñ Modou

nga booy xool Sénégal euh, dafa bari loolu dafa am paradoxe dañuy wax naan kët Sénégal dëkku démocratie la Sénégal c'est un état de droit mais pour man droit bokk na ca ni nit ki nga jox ko ak xam nga koo tuumaal def ko kaso mais yaa ngi koy teg coono goo xamante ni bi ci xamagoo ba xam moo def kon da nga war a gaaw atte ko dogal bi doon bàyyi wala kaso yaa ngi fàttaliku li xewoon ca kaawu El Hadj Omar Lamine Barji mhm. ban fi jàppee ku ni wax Chérif Samsidine Keebanding Aidara mhm. def na ci kaso bi juróom-ñaari at ñu soog koo ñu mhm. ko libéré ni ko defoo dara xoolal loolu ci accusé le meurtre bu yàggut moo ci mujj ana imaam Ndaw ñetti at daanaka waxal ko fi lu ne ñu ga ñu génn ni ko defoo dara kon nanuy gaaw di atte kaso yi ni muy feese nii ñu ci bari seen ay dossier sax doo xam fu mu nekk xelu su juste système bi la mo mo mo tëddee nu ni mel. lolay problème bi dafa mel justice dafa am ay dossier yu ko gën intéressé buñ ko waxee yaa ngi wax sang kaw politiciens yi wala kaaw Khalifa Sall kañ lañ enclenché dossier am kañ la dem prison mais xol amna fi benn sénégalais bo xam ne ko ba muy lijjanti ay recours amul bat sénégalais bi amul bat des fois moom lañuy ñuy tuumaal sàcc ginaar wala nga romb rek fil benn waay mu porte la plainte nga dem kaso nga tëdd fa ñu fàtte la pourtant loolu bu ñu waxee dëgg état de loolu dafay xañ doomu aadama gi àqam ndax àqu nit mi ngi toll ci rek da nga ko tuumaal moo def am deful attekaay moo koy firndeel kon atte ko bu ko defee nag boo parce que tey da nga dee ñu koy wax dañuy gis kuñ tuumaal tas njabootam ah jabaram dem na ay doomam seenum njàng yàqu carrière am yàqu avenir am ca fekk na lañ koy tuumaal dara amu ci kon gaawal atte waaj dellu ci ay soxlaam wala gaawal atte waaj dem kaso penam jax mu liggéey wat waaw man xam nga euh, xaw naa jàng tuuti droit euh, li ma ciy gën a retenir ci les principes fondamentaux du droit mooy que ni la justice est rendue au nom du peuple kuréel gu nekk nag ci réew mi mën na suuxe économie mën na suuxe sociale et cetera justice moom bu nërmeeloo ci réew loolu musiba la te liy nërmeel justice ci réew bokk na ci euh, askan wi yu ñuy juger à leur bañ a gis seen bopp ci ci justice beneen bi dana laal sax économie nag euh, boo xoolee affecté kër gi yëpp mhm. boo xoolee euh, début 2009 àdduna bi jax ndax terrorisme Sénégal wone ni moom dëkku jàmm la en tout cas ñu ci dëkk yi nga xam ni ñun ñu ngi xalaat ay terroriste ak yooyu yàlla nañu ci yàlla musal en tout cas loolu la Sénégal musa doxee nguur gu fi nekkit loolu nga musa doxee mais depuis les événements de Charlie Hebdo soo seetloo réewum Sénégal dafa am propension wu xaw a mel ni ku nekk dans la défensive xaw a ragal mhm. on parle trop de terrorisme chez nous alors qu'on ne le vit pas alors qu'on ne le voit pas ñaata nit la ñu denc ci kaso bi di wax waxi terrorisme li muy laal ci économie mooy am na koo xam ni moom moom day déglu information rek bu njortee ne Sénégal kat jàpp nañ fa ay nit ci terroriste dootul ñëw. Mm-hmm. te yàlla seede na ne. Mm-hmm. même bi fi wax affaire ay burukaay ak yooyu man dama tiit. parce que ñun suñu. day affecté tourisme waaw ñun notion bi ñu am ci ci pacte social. ci contrat social. mooy ni ñu cultiver les interactions et les interrelations entre nous ñun may ñu sax ñuy xalaat violence. le sénégalais n'est pas un homme violent mm-hmm. ah man terrorisme man kun ci jàpp ci Sénégal moo xam anam bu la ci jàppee man daf may jaaxal parce que gisuma ko te it bu leen bu nu fàtte ni Guantanamo américains ñi ngi desserrer les taux hein mm-hmm. mais grand Guantanamo prisonniers yeen fa gracier ci terrorisme mm-hmm. yónnee nañ ñu ci ñaar <laughs> ñaari milliards effectivement vous ah, vous yaa ne truc yoo xam ne buñ buñ ko fooyee xale yi na

bari na ay dëkk yoo xam ne pour nga accéder ci Facebook pour nga mën caa sax nekk euh, mais il faut nga am au-delà de 18 ans. dañ ko sécuriser quoi. dañ ko sécuriser vraiment il faut que ñu xool man waxuma censure hein je suis pour la démocratie. mais il faut que cette liberté d'expression. assujettie aux nouvelles technologies de l'information et de la communication soit encadrée. très bien à tous les niveaux. bu ñu ko defee rek musiba yi ñu mucc ci daal. Père dafa am benn fait boo xam ne tamit euh, souligné ma ko sànq si euh, si article bi. Euh, lu mu wax rek mooy euh, dafa menacé pour taal boppam te euh, cas bu ñu fi am bu récent moo di Cheikh Diop bi nga xamante ne doon na jéem a taal boppam buntu palais ba tey gis nañ fi mu mujjee ak famille am topp ci ginnaaw ci loo xamante ne nii mënoon nañ ko regle donc encore une fois bu ñu gisee yu mel nii dañuy xalaat dossier yu mel noonu ndax dañuy ne souvent dañuy faral di seetaan seetaan mooy indi bu ñu yeggee ci limite bi wala ñu sës si miir bi la ñuy doog a réagir waaw xam nga mar di taal yàlla nañ caal musal xaru baaxul bu mu taal boppam waxte bu xaroo xaru moom ku ko def ah nee nañ yàlla suñu borom day ah mun na am nga génn ci yërmandeem mais Sénégal mooy dëkk boo xam ni da ngay sàcc xaalis avocat doo njëkkante la nga taxaw saag nit ñu ubbi la fan sa club nga sàcc ginaar ñu tëj la vingt ans kumba am ndey kumba amul amul ndey moo fi nekk mhm, mhm, mhm. te xale bu am vingt et un ans ñu ni bon ci ni ñu waxee rek ay réseaux sociaux ñu njort ni ay dugg ci mbiru terrorisme tax 21 ans ñu tëj ko ci kaso boobu léegi ñaata at la tëdd kooku est-ce que ñu ngi xalaat ëllëgam war a bokk ci ñi nga xam dañu war a fondé foyer war a seen war a dun yokk sunna dunda Mohamed yokk njabootu Seydina Mohamed kooku te ñu jël ko tëj ko ci kaso bi kooku xalaat nañ avenir am dossier yi li Modou Mbacke wax léegi dëgg la de ak li Pape wax. Mhm. ñu bëgg seen dossier gaaw ñu ngi koy gaawal. ñi nga xam ne int maanaam dafa mel ni daal dafa am sénégalais lambda ak sénégalais boo xam ne daal. Mhm. buru bara rek bu nekk ci dëkk bi di taxawaalu. wala amul ndey amuti mbokk nda doxandéem même bu dee doxandéem sax dañ koy jox ak xam ak yelleefam kaso yi moom li fi nekk. moo demee daal dafa mel ni kon baadoole yi daal la gën a sonal. moom daal li Olof Ndiaye di wax rek. tere buur ranko ñi baadoo laa koy siiñ loolu la war a jeex nag. loolu nag moo war a jeex ci réew mi. ñun nous sommes tous même pied d'égalité amul sénégalais bu gën a doon moromam sénégalais li am solo ba am solo réew mi dafa laaj taxaw seetlu li gars yi naan dañu ndëppal réew mi réew mi faaw ñu ndëppal ko ñu xam ne ku ci nekk danga am loolu àq ak yelleef même bu dul dara sax nanu xool suñu diggante ak suñu borom. bëgg naa bëgg naa tamit per sala su ma ko mayee beneen fee boo xamante ne damay bëgg souvent ñu dellu si si. Euh, ñi siy wax yëpp nañ ma gaaw jugé lu ñuy décrier mooy condition yi nekkee ci biir. xam nga ñun xamuñu prison lu fa nekk gisuñu cadre bi ñuy évoluer mais ñi fa nekk ñëpp loolu la ñuy décrire maanaam nekkiin nga baaxul euh, xëy na ñu ngi leen di noot mm. wala ñu nekk ci anam yoo xamante du ñu mën a épanouir en tant qu'être humain waxuma nag nga nekk fa am lépp li nga bëgg mm. mais en tant qu'être humain ni ngay gisee da ngay perte sa dignité gis nga dem naa fa seet suma benn xarit bu ñu arrêté woon man jooyalu ma sama xarit bi de la ma fa gis laa mm-hmm. bu am na ci ñoo bu ñu amee visite dañ leen di génne yóbbu leen benn néeg bu baax confort teg leen ñu waxtaan ak seeni i nit mais am na ñoo xam ne ñu amee visite danga nga naan déw déw déw déw déw maanaam ñëppay wax doo mun naa la ah foo nekkee maa ngi boor bii ba nga ñëw taxaw ak moom ngeen di wax benn deux minutes. Mm-hmm. sa yaram dafay daw waxuma nag condition yi ñu nekk ci biir. parce que ku ne xam na ni kaso moom neexul chaque jour moo ko nga dugg sa néeg di tijji nga dugg sa biir néeg di tëj rek caabi ji damm ci biir. Mm-hmm. le temps que ñu lay lijjanti yow ba di la tijji rek temps bi ngay def sa biir néeg rek. problème la wala nga paan ci ascenseur. loolu xam nga imagine toi di métte mm-hmm. mm-hmm. léegi nag ñu tëj la benn place boo xam ni. balaa loo def da ngay tàggoo dañ lay surveiller da ngay nekk maanaam mu yow da nga da nga da nga dem ba sax ba jàpp ni yow nekkatoo ci àdduna loolu dara gënu ko métti. loolu mm-hmm. yërëm ñi ci kaso yi. te ñi nga xam dañoo néew doole amuñu xaalis bi ñu amee avocat amuñu peut-être taxawu li Modou Mbacké wax seen i tas am na ci ñoo xam ne seen mbokk abandonné nañ leen am na ñoo xam ne amatuñu famille. Mm-hmm. nañu dimbali ñooñu. gis nga réew bu ñu la ko joxee da ngay seet néew ji doole yi nga gën leen a jàppale parce que saaku ceeb boo ko tegee ci buntu kër gi ni sama kër gi kat ku attanu saako bi doo ci lekk amaana sa parental bi nga bëgg ci kër gi du ci lekk. dëgg la mm-hmm. euh, sëñ Modou. am na loo xamante ne su ñu ngeen ko léegi mm-hmm. longue détention certes mais am na ñoo xam ne jàpp nañ leen te xëy na seen famille sax xamuñu nañ leen jàpp.

ñu war koo jubbanti war ko wan ni ko li nga def bu ko defati baaxul fa mu nekk mënta neex c'est vrai mais daam loo xam te ne bii doomu aadama la dañ ko war a jox cër ndax jubbanti gi tamit bul yàq ñaata nit ñoo dem prison génn fa ak bët bu yàqu mhm. yaa ngi gis kaw mhm. kaaw kii nga wax ni Cheikh Diop am na beneen waay bu dëkk fii Grand Yoff mhm. soriwu ma dara kooku tamit mook imaam ndaw soriwun bi ñu leen jàppee ñu bàyyi ko bëtam dafa yàqu te pourtant nañu ko defoo dara yaa ngi wax sànq ne atumaan ah deful dara dañu mm-hmm. wax pourtant dañu ko sujet ni ko acca ah, defoo dara léegi bi tam yàqu mm-hmm. léegi jeune boobu toll ci vingt cinq ans trente ans est ce que wër ta mën a nekk avenir réew mi ëllëg léegi boo ko yàqalee cëram daa dañ koy teg benn handicap est ce que loolu mooy rulu kaso non non barki démb le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall dem na ci kanamu député mi ngi koy wax ne ne léegi dafay yomb ñu jàpp nit mm-hmm. c'est vrai Sénégal ñu nga jëm moo war a nekk li mujj la sàcc tëj la. voilà balaa ñuy lijjanti ndax yow laa bi yow fekk defeere nañu. ramas nit ramas jël sa cadran amoo cadran ñu dugal la ci fourgonnette bi. jël la fàtte la fa fàtte la fa te pourtant. dañoo war a def kaso bi doon luy mujj. dem na may wax sax léegi ay puces électroniques bracelet électronique voilà bu nu la ko takkalee mën na localiser loolu moo am ci réew développé yi. Mhm. États-Unis boo demee sa kër ngay toog. doo génn réew mi waaye ñu lay xool foo dox ni ñu lay localiser am sa trace lépp Sénégal dañu war dem ba xam ne kaso neexul ki juum ba dem fa mën nga ko wan ko juum nga donte SMA koo xam sax li la nga koy tuumaal amagoo preuve ni moo ko def loolu dafa métti ci nga tëj ko fa sept ans huit ans xëy ko ni dara nit def njëmbe gu ni weng hmm. ñu koy làq-làqal dégg ay milliards laa de ay milliards et pourtant ay milliards yooyu ñuy wax tey nga koy uuf di ko làq-làqal am na kun tuumaal fee genn ginaar gu ndaw. 3000 mhm. francs man ci kaso ba dañoo war a bàyyi xel ni dirigeant ci am réew da nga am àq ak askan wi. te ba pare sax nga arab nga baal ma ki nga xam ni moom daf millions yi la bu ñu ko dugalee ñetti fan la fee def ñu ne yóbbu nañu ko pavillon spécial. bu mm-hmm. dee maanaam feebar na yóbbu nañu ko pavillon ka ñàkk bëtëm moom ka moom c'est euh, li ñuy utiliser ci ay médicaments moo nekkul à la hauteur moo tax ñu nekk ci condition yooyu. c'est vrai c'est vrai c'est vrai au-delà même des des prisons débat ñuy posé dafa am solo parce que lépp mu ngi tourné ci. le respect des droits sacro-saints mm-hmm. de mm-hmm. doomu aadama yàlla ci boppam moo ko njëkk a mm-hmm. ci Sénégal dañu commencé banaliser ces droits qu'il soit d'ordre collectif ou individuel dañ koy banaliser su ngeen fàttaliko am na fi benn journaliste blogueur tchadien Makayla la di bind ci réewam rek ñu taxas tënk bind expédié dañ ko dàq Sénégal Sénégal euh, réew taraang ñëpp ko ñaw woon jamono génn fi xam nga luñ gën gàcc ga mooñ ci dal biñ ko génnee Sénégal expulsé hmm. France moo ko may asile ah. il vit actuellement en France génneem africain ak ak accueillir ko mais ku koy Samba Sagna <laughs> waaw doomi Sénégal yor carte d'identité nationale sénégalaise dañ ko expulsé Sénégal hmm. mu dem Mauritanie dee fa ñu ne ko Sénégal. <laughs> on ne peut pas jouer sur la liberté des gens bari des célébrités ñu en main à partir avec la justice. ñu dam seen bëñ Cheikh yirim wala ñu dam seen tànk. nit ki lu def ci mhm. de correction. Mhm. bien que dafay am privation de liberté. Mhm. sàmmal ak du pour moom mi ci en tant que pour ki nekk ci biti mais ñeme justice justice am te justice kenn mënu ko ragal kenn waru ko ragal te xam nga dafa dafa dafa xaw a sensible waaw ñun bu ñuy traité justice di ci génne faay yi ñun ci dañuy dañuy am problème ah. parce que am na saay-saay bu làqu ca génnaaw waaw moom faay justice lay xaar pour mhm. def naka su dul noonu c'est ça <laughs> c'est ça <laughs> non am na am na am na solo parce que dañuy yëkkati ay ay ay fait yoo xam ne maa ngi déggaat encore beneen thème TC régie parce que ku ci nekk euh, jot nga dund moo xam sa proche la wala koo xam wala sa xarit wala leneen te mu nekk ci condition yoo xam ne yaa ngi koy yaa ngi koy déplorer am na yenn yoo xam ne ñun sax mënuñu koo wax ndax da ngay da ngay rus ñi lay seetaan euh, teggi newuñ nga mun ci jaar pour wane rek ne euh, dayo bi nga xamante ne nii ñu ngi fay nekkee Euh, Doyen Award Yakarnani ni encore une fois non politique war nañ ci jàpp jël ci ay ay matuwaay ndax man ministre de la justice moo ko déggee assemblée mu wax li détenu am si Sénégal dama pour man Bouyagé, ne bu yàggee léegi million bu nekk ñu xaaj euh, un tiers ba tëj ko

d'ailleurs gis nga leen ñoom itam ñu ngi grève nañu seen ay conditions de travail dafa metti mhm. ndax nguur gi sàmmul ay accords yi mu woon ak ñoom nga xam ni kon problème ci biir problème la dëgg la voilà jërëjëf sëñ Modou du ñàkk di nga ko di nga ko yaatal ci beneen tribune ah, waaw incha allah si euh, débat de la rédaction ñin ñi euh, xaar ko foofu noonu du ñàkk nga gëm si euh, yeneen i ponk yoo xam ne di ngeen ko aborder mu gën a leer ci xelu askan mi dañuy jàll ci ci la ñu bokk ak maam jaara léegi-léegi Mme Diaraba, handicapé et commerce, comment écouler les produits invendus Effectivement, Aram, comme vous l'avez dit, nous avons une semaine bi passé mais xam nga comme dañoo nekk ci semaine nationale des personnes handicapées yoon la ñu andiwaat ko fii gën koo développer mu gën a yaatu ci li nga xam ne mooy mooy téléspectateur ak téléspectatrices yi nga xam ne ñoo seetaan ma koy faral di wax ne année sociale année sociale bu ñu ko waxee rek képp kuy handicapé rek war nga ci mën a gis sa bopp man nangootuma handicapé di defar ay ay ay ay marchandises te du ko mën a écouler. Mhm. ñu ngi fàttaliku centre bi nga xam ne moo nekkoon Caaroy centre bi dafa tëj parce que centre bi ay serpillère la doon defar dem na ba mënatu ko écouler ñu daal di koy tëj léegi handicapé yooyu yëpp delluwaat euh, silmaxa yooyu yëpp doon fa delluwaat ci mbedd di tàllal loxo te aram bépp handicapé boo gis mu nekk si mbedd mi di tàllal loxo jàppal ne am na benn métier boo xam ne mu ngi ko toogaale te bu amoon ko ko ci jàppale mu ne mhm. ci biir loolu dañuy def régie seetaan élément bi daal di ñëwaat mhm. ñaari centre bi nag kii ñoo fi ne ñaari association Colombey la ak AFO AFO mooy handicapé yi ñooy liggéey saag yi papier yi ak saag de mariage yeeg ak tissu ak yeneen ak yeneen buñ sañoon nag li ñuy liggéey ñu am ñu ngi liggéey di teg loo xam ne lii tey ñun ci suñ bopp dañoo bëgg muy jar di ñu am luñ ci luñ ciy suturloo parce que mënuñoo dem di tàllal tàllal suñ loxo ci mbedd mi buñ sañoon nag li ñuy liggéey nit ñi di ko jënd di ñu fexe di ñuy génne ñuy jaay suñ produit loolooy warugar bi trois décembre bi ngay gis buñ sañoon ñun ci suñu bopp ñu gis ci suñu bopp gis ci suñu bopp mooy lan 3 décembre bi ku nekk la nga war a xam ne ñu ngi koy jox ñu jox ko ñi nga xam ne dañuy toog di liggéey parce que fédération bi li mu war a def mooy ñi nga xam ne dañoo am ay association di toog liggéey ñu jàppale leen bu boobaa ñoom ci seen job financement yooyu gouvernement bi def ko ñoom ñu gis suñu bopp bi bu fekkoon ne daf ñoo taxaw ñi nga xam ne dañoo am ay atelier kon yaakaar naa ne ñun duñ jooytu ji fenn parce que fédération bi li mu war a def defu ko li mu war a def mooy wàcc ci terrain bi toujours ma wax leen ko ne leen ngeen dem ci atelier yi nga xam ne dañuy liggéey di former ay nit bu boobaa ñoom ci seen bopp la nga war a def nga jàppale leen ci waaye fédération bi yaakaar naa ne ni ma gisee ñun ci seen bopp fédération bi ni muy doxee mooy seen bopp lañ fi neel musuñu koo gis lu mooy dalay lay dig ay santayañ musu fee ñëw benn yoon la fi mës a moom ci boppam yaakaar naa ne boo nee député am na foo war a dem foo xam ne fii atelier yoo xam ne ñoo fa ne nga teg ci sa bët parce que loolu la la président Faye. année sociale bi ñuy wax yaakaar ne ñun waa Wakaam de gisaguñ ci suñu bopp parce que financement yi am na fi ñu ngi koy dégg te fii boo fi ñëwoon tey rek nga dugg ci atelier bi yaakaar naa ne centre bi boo ci duggee rek foo jaar yow ci sa bopp da nga da nga financé ko fii ña fay liggéey parce que dañ toog tey di liggéey lu nu am. bu buñ demee ba jaay ko ci la ñuy dem séddoo ko année sociale bi ñun gisuñu ci suñu bopp. foire boobu bu bu bu doo yoon doon am dañuy atelier yi nga xam ne dañoo formé wu di liggéey di handicapé dañ leen a war a jox benn centre boo xam ne bi ñuy teg fa seeni i bagage wane seen bopp bu boobaa nit ña ñi nga xam ne dañoo jóge bitim réew daan leen mën a jàppale waaye foire ba yow ci sa bopp boo amut ku la tong nga yéeg doo ci jot. moom matière bi dañ koy jënd parce que ñu ngi koy jënd ti leen da ngay jënd benn raam raam bi da koy jënd douze mille da ngay am col la ngay jënd col bi col bi 3000 yang koy jënd 1300 nga jël taxe delu ci kon fi mayewuñ fi dara dar di len sant di len gërëm nak di ñaan yëf yi gëna yok bañ fekk ko na ngeen dewe nak jam mam jara wa arab gis na ñu seetaan nañu élément bi gis nga né centre boobu handicapé centre bi nek euh, wakam la ñu fay liggéey lu am solo di defar ay ay sac de mariage am nga tay sac de mariage arab tay ji mun nañ ko defar ba at bi wat kenn du ko jënd te loolu yaa ngi delloowaat handicapé bi ci mbedd mi pour mu tàllal loxo mm. ndax mu ngi koy wax léegi ci biir waxam mu ne ñun ñu dara ndax ñun batterie bi dañ koy jënd til leen lañ koy jëndee imagine ku jël jënd rame de papier euh, benn douze mille nga ñëw defar ci ay sac de mariage mu toog un an jarul te fii ñu fii ñëppay marié man damay marié keneen day marié keneen ak ah c'est ça la waxa rek keneen ak keneen day marié sa gi moom benn oto lomb la ñëpp ay jàpp leer na yow ah handicapé yi kat seetaanoon naa DTV gis naa handicapé yi kat di defar sac de mariage xaama dem foofu ñu defaral ma mais gis na nekk handicapé écouler sa marchandise moo nekk loo xam ne dafa mel parce que ñu ngi lay xoolee handicapé bi kii de lu ko jënd si handicapé handicapé bi jaay lekk nag moo gën a sonn stigmatisation bi encore une fois loolu moom dafa ancré fii ci dëkk bi handicapé bi jaay lekk boobu handicapé moo gën a sonn wax a wax a parce que ñu dëgg la am na commencé changé mais comme année sociale la ñu wax dafa jot nag yëfi saan ndax handicapé ah, bi muy handicapé ba léegi dafay dund ay ay coono te boo xool aram handicapé yi am nañu député ci assemblée nationale pourquoi pas foire internationale bi ñu xam ne handicapé yi ñu ngi fi yor seen métier di ko def lan moo tax auto en tant que député nga yor. boo ko waxul woon nii duñ ko yëg de. duñ ko yëg non am na sant seen añ la tudd. sant yow da ne euh, foire bu bu yi di exposer ay produits et tout ma soo ko waxulee kenn du ko xam. parce que amuñu tribune boo xam ne dinañu faral di gis euh, lu mel nii ñu koy exposé. est-ce que buñ yi bu bëggee exposé seen autorité yi ngay invité sax duñ ñëw ñun ñoo koy mujj di jëndaat suñu biir di jàppalante booy xool ñoom ñu ngi defar ay ànd ah ñu ngi defar ay œuvre d'art tey ñu ngi ci décembre am na ay lampe yoo xam ne tey làmp yooyu ñoom ñoo ko defar te lampe te tey ku nekk tey da nga dem jëndi sa lampe wala sa fleur wala ñëw orner sa néeg mm-hmm. orner sa bureau pourquoi pas mënuñu dem jàppalee ko handicapé yi xam ne ñii kat mm-hmm. amuñu tànk boo xam ne mm-hmm. dañuy gàddu seen bagage dugg fu nekk naan jaay ma loolu lépp aram bu mënul ne ñu ne ah comme handicapé yi ñu ngi fi yor seen métier te ñu ngi ex ñu ngi ñu ngi ñu liggéey xaaral ñu utal leen benn stand ci foire boo xam ne une fois par année la au moins dinañ fa gañe loo xam ne kat même bu ñu amul lépp dinañ xam ne kat ah man kat sama réew ma bokk jox nañ ma sama gëdd ndax xam nañ ne lii mun ma ko woon am te te te te jàppale nañ ma si gis nga nit ki nekkul nga xëy di ko may xaalis loolu du jàppale xam nga lan mooy jàppale nit nga defal ko loo xam ne bu ëllëgee du ñëwaat si yow ne la jàppale ma day xool keneen koo xam ne dafa néew doole comme comme moom ni mu ko néewee woon doole mu jàppale ko kooku jàppale keneen loolu mooy émergence waaw mënuñu la fal nga nekk député yor kàddu ndaw réew mi di waxal askan bi di waxal handicapé yi arab Nous doy faire foire internationale. que nous les comprendre Mame Diarra parce que yow sooy wax. Ah, mooy euh, li non mais. Non, naa ne xol la waaw reconnaître il faut nous reconnaître ndax su ma reconnaître du du du du baax en fait ce serait pas euh, honnête. Mm-hmm. ku mel maire Santé Agne. mini def ay djego djeme ko si euh, si handicapé yi mënul laal fépp nag. waaw parce que mairie du du ministère mairie du du du état avec ses propres moyens des organiser événements, des organiser yeneen ak yeneen te mu ngi koy def jëmee ko su ñom te sa su ne day yëkkati téléphone am wooñu ñu dem couvrir donc je pense que si le mu nekk dañ ko si wara fekk si jappalé ko ndax mom rek ben loxo du doy si li bu seetaan bu seetaanee li sax parce que li nga def ni euh yang koy jappalé ci liggéeyam parce que dina ne ah man kat li mam jaara mi wax dëgg la kon naa teg foofu sama loxo naa dem jàppale moo tax c'est important xam nga boo communication plateau bi ñuy def nii mhm. li fiy génn ci xam-xam ñun bu ñu génnee ci biti nit ñi nit ñu di wax les fois nga wax dara sa fàtte ko ñi ci biti ñoo la koy fàttali bi ngeen waxee keroog nangam moo tax yu mel ni c'est important mm. tey jii fi ne Mame Diarra moo fi nekkal euh, ñi nga xam ne seen baat jotiwul dañuy handicapé mm-hmm. bëgg wax te Mame Diarra moom la moom la fi toogal moo tax des fois buy wax foo nga xam ne kii ci xol bi lay waxee te lu jógee ci xol si xol lay dugg mais li gën a am solo dañuy fàttaliku tuuti ginnaaw ay jamonoy Léopold Sédar Senghor jàpp ab Abdou Diouf village artisanal bi handicapé yi bu ñu musaane defar ay dara lu mel ay ànd wala dara état da ko daan jënd jox ko waa village artisanal ñu exposé ko di ko jaay tubaab yi absolument c'est ça loolu mooy ndimbal nag gis nga boo gisee toujours ñu naan Sénégal démb parce que yi amoon démb amatul daal sama yaay birki démb dañuy wax tamam yaa ngi ah njaay li dara neexatul ak ni ma ko waxee sama yaram daw mën na ko yaay li nga wax mënuma doom dara neexatul mm-hmm. yi muy dégg yi may dégg xawma lan la. elle a quatre-vingts ans. mel ni si beneen lii macha allah mel ni léegi moom dafa jàpp ni beneen jamono la nekk. tellement que da ngay xam ni soxna si découragé na parce que dara neexatul. xolo bu njëkk ba yooyu moo daan am yërmande boobu. état daan dimbali ñëpp. amoon na benn orchestre bu fi nekkoon boo xam orchestre ay handicapé rek lañ ay silmaxa mais gis nga toujours dañ leen daan boole ci spectacle yi. ñu mën a woy loolu neex baat ñii di kooraa ñii di xalam ñii di xam di

lan la ñu am ci ñoo xamante ne dañu am ay handicap parce que li ñu war a souligner encore une fois mooy ne am na ñoo xam ne handicap bi société beleen ko teg mhm. nekkul loo xam ne dañ ko choisir mën na nekk si tali bi la mën na nekk si leneen ak leneen te si cette personne décide moom en retour mhm. ne jël na destin am en main te dafay ñëw impliqué wu pour euh, développer wala bokk ci développement réewam mhm. am na encore une fois taxawaay boo xam ne war nañ ko def au delà de carte dégal des chances bi ñuy wax bi nga xamante ne. Euh, day jaara du ñëpp si jot. du ñëpp ci jot quoi ñëpp jot carte d'égalité des chances bi du ñëpp ci jot te liñ ci doon xaar ñun ba léegi gisaguñ ko beneen bi may wax aram sant seen añ xam naa ni mu ngi def dara si année mais dama ne en tant que député. Mm-hmm. nga yor kàddu ndawu réew mi. yoon la boo toogatee assemblée nga ne am na handicapé yoo xam ne dañoo yor seen œuvre di liggéey nañ leen jox foire ci nañ leen jox stand ci foire bi ah, loolu man dama di seen añ plaidoyer boobu daf ko war a defal handicapé ñun albinos yi amuñu ku ñu jooyal assemblée amuñu ku ñu jooyal assemblée sant seen añ xamul ñun suñu problème suñu problème en tant que albinos moom xamu ko yoon la ñun tamit ñu am benn albinos boo xam ne ah dina toogal kat albinos yi fële ci mm-hmm. assemblée nationale nga mu waaye nga naan ma ay arme ma loo arme loolu beneen débat bu jaawale bouton ak bouton nga ne bu jaawale bu jaawale bouton ak bouton man bëgguma koy jaawale bouton ak bouton man xam nga lan laa wax gis nga yow mi nga xam ne yow la yàlla may làmmiñ sa làmmiñ egg foo xam ne ñi ngay xeexal seen làmmiñ egg fa sooy dem di yóbbu seen kàddu da nga yóbbaale seen jëmm loolu laa wax day aram lii mooy problème Sénégal li maam jaara di wax bu demee ba nan sénégalais bi ak bii war naa am représentant ci pencum ndaw réew ma nga benn député day représenter tout un peuple hmm. nga wax représentant du peuple sénégal mi ngi commencé am problème bi ñu bëggee dugal naan député diaspora député baykat sàmmkat député parti député député la député sénégal bu xasee am benn député représentant du peuple la hmm. moo xam mu ñuul mu xees mu lu mu mën xew lii mooy problème moo bu ne le parlement mi ngi li comme rôle le joytu bu nuy def bu nuy wax le xel Sénégal mhm. parce que waruñoo indi ay séparation voilà député du la député côté non non non Sénégal le député di représenté kon def pour le Sénégal comme les Sénégalais mhm. mais am problème Sénégal parlement bi rôle xaar ci bi plaidoyer bi nga xamante ne nii Mame Diarra yëkkati na ko léegi mu soxal euh, handicapé yëpp la ñoo dañoo wax albinos ñoom ñëpp parce que moom euh, saa su nekk loolu lay lay souligné. waaw yow da nga yow li nga wax mujjee wax sànq lu am solo la mooy il faut ñu am au moins un recensement pour ñu xam Sénégal mhm. yan catégorie d'handicapé ñoo fi nekk ñu xam nan lañ leen di aussi parce que loolu mooy rôle état parce que état lu mu mën a def en terme d' infrastructure te dooleelul nit ñi pour ñu jot seen dignité mais dafay sooxe dafay des mm-hmm. te ñun ci suñu sociologie ñun sénégalais terme yi ñuy woowee un handicapé rek dafay stigmatisation mooy dañuy euh, euh, ku wàññeeku ki mm-hmm. nit ku matadi mooy laago bi xoolal tey soo bëggee reetaan ci réseaux sociaux yi en tout cas si tu distraire sur les réseaux sociaux mm-hmm. dan lay woon benn handicapé moo xam moo xam dafa euh, dafa. dafa ndaama dafa ndaama wala mu muy puune walla bu lay reetaanloo. am dañ koy laaj muy fecc wala muy kii. ñu koy këyit ça m'a fait très mal. Mm-hmm, te man j'ai eu la chance de de de de parcourir l'Europe dama mus a waxtaan ak benn benn médecin espagnol. Mm-hmm. mu ni ma Mamadou. xam nga suñu réew fan la toll te moom handicapé la dama ñëw mu ma ci guddi gi ay deux heures du matin topp too ma le lendemain ma yeewu ñuy waxtaan mu ne ma du ñun suñu réew xam nga fan la toll loolu damay ñaan yàlla ñu egg fa mm-hmm. mooy que bu fa nit amee handicap ñu doon ndaw muy un handicapé physique ci tànkam ci loxoom mais ñun xam nañ ni bu la yàlla xañee lenn li multiplier na ko feneen mm-hmm. imaginez ki nga ki am laago ci tànkam wala ci loxoom. Mhm. en général xelam. day xarañ day xarañ. Mhm. mu ni ñoom fi ñu toll mooy comme que da nga am handicap ci sa loxo wala ci sa tànk ñu utiliser sa xel. effectivement mooy ñu sëf la les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mhm. pour nga nekk un ingénieur. au moins di nga mën a téléphone au moins di nga mën a def conception benn logiciel. cest à dire que utilisation moi je peux pas circonscrire les handicapés du Sénégal à une seule activité économique, le commerce. Ouais. Ils ont d'autres talents. Nous cultiver. Nous mm -hmm. la stimulation du génie qui dort en chaque Sénégalais. Très bien. Mhm. Man leer na man bari na ci ñoom ñoo xamante ne ñu jëlee li na ci ñoom man naa jariñ Sénégal lu raw ñun ñi foog ni ñun danoo mat. lu ko mhm. ëpp. Dëgg la. allez euh, man waaw lu ma ciy yokk rek moom mooy euh, li ñuy wax sànq je pense que ni ñun suñu problème surtout si wàllu jikko la euh, dañoo gaaw a xeeb nit lu nu gis xeeb ko mm-hmm. moo ngi koy wax léegi nit bi ñuy wax nit mooy xel moo tax ñuy wax nit c'est sa mentalité du sa jëmm du say loxo wala say say say tànk nit potentiel yu mu am bëri na mën nga am laago ci tànk wala ci loxo mën a am leneen loo jëriñ fa féete bi te man li ma gis

kenn koo xamante ne mu ngi bay waaram ci côté boobu noonu te président rek le fait que mu def ko conseiller euh, ci biir présidence wane na ni il donne le temps que encore une fois c'est une façon de montrer que waaw mi ngi bàyyi xel ci ci ci couche de la population boobu noonu donc yooyu tamit euh, Mame Diarra day baax ñu fësal ko il faut waaw pas tout simplement ñu yaakaar ni ñun on est nihiliste am na yoo xamante ne tamit ay jeex yu baax la te jar nañu fësal ko xam nga xam nga xam nga liñ naan daanu dajul suuf mm. te kuñ bu ñëwee ñëpp yam am ñu gedd seen cër hmm. mais léeg-léeg nit day toll foo xam ne fi mu toll rek lay yaakaar ni foofu rek la hmm. si ndax bañ ko nee loo xam ci garab bi dañu fi ma ci dar hmm. léeg-léeg ki nga xam ni moom tey euh, santé añ boobu tey bu fekkee dafa nekk assemblée di waxal handicapé yi rek dafay mel ni sax moom dafa génne boppam ci biir nit ñi nga xam ni du ñuy handicapé mais buy wax dafa war a wax en tant que député rek waxal mm. askan bi li Khalil wax léegi mën na nag beral loxo ñi nga xam ne handicapé yi mais bu ñee fu ñu fekk lu bon fu lu positif nekk lu négatif ma nga fa fu lu négatif nekk aussi lu positif ma nga fa tey suñu sama jigéen bi xam naa ko baax depuis bi mba Aïssatou mm. xam naa ko baax yàgg nañu sax liggéey ci yu baree baree baree baree baree ku am détermination am xam-xam la ba pare am jom mm-hmm.

ay tungu ne du teew ñu nataal loolu kenn du ko xam. absolument kiy dégg loolu dafay metti mhm. da nga naan nit du ñu jonn ñu koy natt ci ëkk. Mhm. loolu mooy baat bi. olof dañuy yàq olof ñu bari fi dégg ñu dañuy waaw parce que tey yooyu yëpp la boo xam ni. Mhm.

loo ko wax rek dafay yaakaar ne loolu moo tax da nga koy am. dëgg la dafa am benn nervosité buy nekk ci ñoom parce que psychologiquement dafa metti mi ngi mel nit ku tuuti. sama papa dana nit bu tuutee bul ko ni boo koy xas bul ko sa tuutaay bi da nga ko naan ak sa pataawaay bi <laughs> boo ko defee mu ree waaye nit doo ñëw rek dal ci góomam danga nga koy gaañ mais mun nga koy wooy di ko wooy ba mu xam ne leen la moo tax toujours baatu olof yooyu nañ koy dañ ay seen gumba gumba ba leen nanu sànni dafa taxaw ci xeer yooyu du wax nanu bàyyi façon terme yooyu nanu xam ni ñoom ay laago lañ ci nut la leen bokk nanu jël yeneen moo di ko utiliser ci lu mel ni ci garab yi Mm-hmm. ay tu nga ne teew ñu nataal lan ko bàyyi dañuy wax ni julli joon ñu koy natt ci ëpp yooyu la ñuy wax <laughs> mel noonu maam <laughs> <laughs> bëgg naa balaa ngay ngay rek wax ma ndax yow am nga carte bi ñuy wax carte d'égalité waaw a am ah ñëw na woo bañ a am xeex moom jëreer la man maanaam man fi may tëjee arab mooy waaw sa ay sëtu siise mi ngeen wax léegi dafa fekk handicapé yi ma léegi ñu leen di génne locaux yi mu xeex si xeex bu am solo mhm. ba ñu delloowaat leen locaux yi mhm. gis nga xeex boobu mu xeex ba ñu delloowaat leen locaux yi sant seen añ na xeex ba ñu jox handicapé stand fële ca foire xam naa moom dina la woo non non man dama ni sama dama ni man man dama ni gis nga li ngay xeex mu jëm ca àll ba xeex ko mu dugg sa biir kër mhm. yaa ngi dégg handicapé yi dañu sonn te am nañ ñu leen mën a jàppale kii lim xeex ba teg ko fii ba handicapé yi delluwaat bu ñu leen génnewoon ci mbedd mi la ñuy mujj bu mhm. xeex ba delloowaat leen locaux yi na xeex ba ñu jox leen foire ci stand bi chaque décembre ñuy génne li nga xam ne moom moom moom la ñu liggéey bu ko kenn mënul jënd sax ñun handicapé yi ñu fekk leen fa jëndaat ko ci seen biir mu nekk suñu fierté mhm. loolu laa wax jërëjëf euh, maam Diarra li nga wax am na solo ci la ñu bokk noonu la ñuy def rek jógee ca jublu ci ñi nga xam ne nag ñoo ko bokk la ñu wax ñoom ñu ñëw ci moom léegi-léegi Touré di coordonnateur mouvement ñoo ko bokk moo tax sànq bi wax mi ngi naa ma ñoo ko bokk fekk fii ñun am nañ ci lañ bokk <laughs> ah ñuy waajal randonnée verte bu mouvement boobule en prélude au lancement du grand prix citoyen modèle ñu mën a xam rek euh, initiative bi fu mu bàyyee ko bon may tàmbali di nuyu sama sœur bi di sama doomu baay ah, ah Bandi Mori <laughs> euh, bég loolu ci invitation bi euh, mouvement ñoo ko bokk mouvement bi ñu ko créé depuis 2014 euh, mouvement citoyen la ñu ngi au niveau de Dieuppeul Derklé euh, ñu ngi liggéey ci tout ce qui est développement social ak euh, environnemental et wàllu social lu y yëngu bari na. bon li andi grand prix du citoyen modèle bi dañoo gis ni jikko yi dañoo yaq Sénégal parce que bu ñu xoolee sànq ba légui débat bi fi mm. ci ci loolu lay tourné. parce que amatuñu repère en fait amatuñu modèle té am nañ ay modèle ñun dañoo gis ay modèle mm. peut-être nak du ñëpp ko gis. ñu ne bon dañuy fexe teg benn projet boo xamante ni mun na delloo si waat les jeunes surtout les jeunes parce que ñun li ñu gën a intéressé mooy cette jeunesse sénégalaise ñu àndiwaat leen si la modèle sénégalais parce que am nañ ay kilifa yu tedd yu baax yoo xam ne ni bu ñu royee ci ñoom mën nañu am lu ñu bëgg si lañ am projet bi tuddee ko le grand prix du citoyen modèle Le Grand Prix du citoyen modèle, c'est un événement, comme les événements qu'on voit souvent. Grand euh, Prix du chef de l'État. Merci, Corridor et autres. Bon, nous avons primé une bonne entreprise. Nous, les citoyens modèles, nous pris. Très bien. Pour cette édition 2018-2019, nous avons pris le parrainage bi jox ko ko ñi naan Serigne Mbacke Soxna Lo nga xam ni munoo tudd Sénégal te doo ko tudd ndax ni mu bokkee ci Sénégal la ci ay jikkoom ci tamit jëfam ñu ni comme dans nos modèles, modèle bu ko woon la jeunesse dañuy choisir sëñ Mbacke Soxna Lo mhm. muy sunu parrain pour l'édition 2018 2019 et le lancement de cet événement c'est pour le 9 décembre prochain dimanche prochain ngeen ko defee fan ñoo ngi des defee au niveau de euh, Bastos à côté de l'école euh, du collège Notre-Dame du Liban hein, randonnée pédestre la ñu tuddee ko randonnée verte c'est pour allier sport et environnement hein, sensibiliser nit ñi aussi si wàllu environnement parce que le bataille est ci jikko yi ñun dañoo bëgg vraiment sénégalais yi ñu invité leen ci ñu changer suñuy comportement. surtout ci cadre de vie am na solo. Ah, c'est ça parce que suñu mentalité fekk ñun nanguwuñu ko changer suñuy comportement suñuy defin suñuy jëfin buñ ko changer wul réew mi mënul émerger. Mhm. dañuy sonal suñu bopp parce que ay bâtiment du émerger doomu aadama si boppam yow yaay bëgg yokku nga avancer. Et lolu dañuy gis souvent état bi c'est vrai que day góorgóorlu lu bëri di ko def ngay gis euh, bon euh, société civile aussi di góorgóorlu lu bëri di ko def ci société bi mais nit ñi duñu bëgg changer surtout la jeunesse. Bien. ñun nak pour cette euh, pour cette édition cette première édition ñu ci invité Sénégalais hein ah ñu ci and ak le club de randonnée pédestre bu nekk Jëppal Derklé ah Jatu Dramé jité ko ñoom it ñu nekk seen wàccaayu seen dixième année qui ah, ci yëngu ci wàllu randonnée pédestre ñu ci bëgg nag teewaayu kilifa yëpp parce que événement bi c'est pas un événement pour benn boor ci waa Sénégal wala benn parti pour Sénégalais c'est pour tous les citoyens sénégalais waaw ah, si biir tamit ñi war a primer pour l'année 2018 2019 il y a euh, euh, sunu papa ji di Ablaye Diaw d'ailleurs là il y a deux jours mu ngi invité woon à la rajo mm-hmm. ah, Il y a d'autres sénégalais yi si bokk ah, je peux citer comme Hugo je peux citer que ces deux-là. Ah, vraiment, on veut mhm. ah, les primer, les magnifier, les Sénégalais, des modèles, ils ont des modèles. Modèles de ils ont des modèles qui Parce que nous faral, di gis sargal nit des modèles fekk les mhm. rek sama staff bi nous mhm. un modèle si bés bi moom ak ku mel ni Bruno Diatta bëgg nañ ko cee vraiment rendre hommage sargal ko ci ah waaw loolu daal moom mooy sunu sunu sunu programme bi pour le 9 ah le 9 décembre ñu si woo tous les sénégalais góor ak jigéen mag ak ndaw persala rek mu sànni ñu quelques mots si si parrain bi nee na Serigne Mbacké soxna loolu lañu tànn mhm. euh, pour euh, tuddee ko bés bi waaw déen de yaakaar naa ni mën ngeen di provoqué gànkal la mu dux ra jabala ñaan <laughs> taaw la ca ndaam garmi la ca kook sëriñ la ci Touba wàll yi ci réew mi Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ku jur Serigne Cheikh Mbacke Xaadim Moustapha Mbacke Serigne Moustapha Mbacke Xaadim Rasul bala si buri Serigne Mbacke Maara mooy sama magu Serigne sëñ Ousmane rakkam mooy sama Serigne dama leen a xam bu baax yéen a ngi sargal ko ko jar bàyyi ma Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma pour wan la ni nit ñi dañu fonkoon kaddu xam nga léegi rek la wax ak nit wax nit ñu signé mhm. bu njëkk ba dama daan wax ak nday aram turé ñu wax pare nga jox ma sa loxo ma jox sa loxo mooy pacte bi dandu mhm. war moroomam mhm. Serigne Cheikh dañ ko mus ni ko Mbàkke benn euh, magu géwél di ko tagg ba mu yàgg ni ko Mbàkke li ma neex ci yow mooy loo wax def ko Serigne Cheikh ni dënd ba mu yàgg ko loo wax def ko sax sunu borom ko mën waaye lu ma narul du ma ko def lu ma lu ma narul rek ma ko wax ko wax nit loolu narul bu ko wax mm-hmm. moo tax valeurs yi mel nii mm-hmm. dañ leen di war di génne mm-hmm. absolument Serigne Mbàkke soxna loo tey li li mu li mu def ci réew mi la maamam yoo doon def def na ko waaye ci côté bi nga xam ni mooy côté social li mu ci def rek war naa mën a tax sax ñu sargal ko waxuma naa nag ñi mu ñaanal ci wàllu sëriñ ak leneen ak leneen ak leneen tey li nga wax léegi ku mel ne tey a Birouna ci wàllu état secret d'état li mu ci garde xam ni kooku li mu xam lépp ay bi ci waxoon benn réew mi mën na xëy rek bouleversé wu maanaam bàmmeelu biir yooyu dañ ko am nañ connexion nag am nañu repère de Allez, yi connecté wu suñu jëndé connexion fiñu connecté wu mo baaxul. dañoo connecté wu fi baaxul. te il faut ñu faut leen ñu connecté wu fii ñu war connecté wu. moo tax ngeen def ñu connecté wu da tudd sama sëriñ sëriñ Mbàkke Soxna Lo ma commencé woon di ko miin nag uh-huh. nekk xale ne ci daayira yi en tant que wilaya jeune yore woon communication bi euh, ci laa njëkk a commencé di photo ak di filmer ah uh-huh. dama lu bëri ndeysaan moo tax bi ngeen ko tuddee rek uh-huh. dafa ma yóbbu sori may profité di ziar sëriñ Moustapha Ndiagne sëriñ Khadim muy sunuy sëriñ ñoom itam def ngeen lu am solo ndax jóge na fi waaye ku gëstu rek gis ni jëfam mi ngi fi ku ko wet demal Taïf Taïf fi booy xool

au début de l'année 2019 lancement le 9 décembre prochain dimanche prochain lancement le grand prix du mhm. randonnée verte euh, ce sera l'occasion pour de sensibiliser population yi ci l'environnement. environnement. Mhm. environnement bi bu ah, aussi euh, na lu gis environnement changer mais bëgg rek ku nekk def d'accord. Il ah, dañuy les casses à café les sachets les xam yi pour symboliquement euh, sensibiliser les gens c'est ça Très bien, merci euh, Khalil Touré, du coordonnateur mouvement Nyoko Boko, qui xamni euh, événement, dimanche à partir de 8h, cité Batos, près du collège Notre Bastos. Voilà, collège Notre-Dame du Liban. waaw acteur environnement yëpp rek yéen da ngeen si war a boole tamit waa UCS ndax am na solo ñoom it euh, ils travaillent euh, pour l'amélioration du cadre de vie donc yoon la yu mel nii bu ngeen koy def ngeen mën leen ci associé ñu leen di ñaanal rek euh, waaw événement bi am réussite merci ah du ñàkk xam naa après Terra dina am lu mu si xool ñu dekkalaat xanaa fii ni jaare fi dekkalaat Terra pour xool <laughs> ndax ah, dinañ ñëwaat si si si si yu mel noonu <laughs> sama émission <laughs> jërë ngeen jërëjëf dañuy jàll léegi si benn page publicitaire dellu si waat ci ñaareelu pàcc bi ak seen métier waxaale it si beneen avènement boo xam ni waa Akos ñu ngi koy def mu soxal renforcement de capacité bu ñu tànn la langue française y les bimensuels de l'immobilier et de l'habitat est déjà dans vos kiosques avec un numéro de lancement portant sur le foncier, l'émergente urgence. Dans sa rubrique Le Grand Décideur, Réussir Imo est allé à la rencontre du ministre du Renouveau Urbain, de l'Habitat, M. Diane Farbassar, qui décline sa feuille de route en matière d'habitat et de cadre de vie sur les sites des pôles urbains de Diamniadio au et sur les zones d'aménagement concerté, autant de volets importants du PSE, si cher au président Macky Sall. Réussir Imo ouvre ses pages au régime foncier, à la loi sur le domaine national, sans oublier le rôle éminemment important que jouent les notaires et les géomètres experts dans le foncier. Réussir Imo vous propose un reportage à la cité Gorgorgi, mais aussi en focus sur Dakar qui étouffe. Réussir Humo vous promène dans les coulisses du dernier forum ministériel africain sur l'habitat et le développement de Dakar et le forum sur l'habitat et l'investissement de Dubaï pour la diaspora. Réussir IMO, les bimensuels de l'immobilier et de l'habitat est déjà dans vos kiosques. se você venez de rejoindre toi-même tu sais avant dernier rendez-vous de la semaine si la ñu nekk don doon Sank ay ponk am solo euh, ñëw nak légui ci le patch bi jagnel ko li nga xamante tay amna am na yaram nak ndax ajara métier bu mu tay euh, sage-femme la euh, néna sage-femme yi seen l'art de donner la vie je pense que loolu la le la bind di dalal ki ñi wax di présidente association nationale des sages-femmes du Sénégal sage femme d'État waaw momi te mu ngi si plateau bi ñuy rafetlu teewaayam fii nii euh, nar ñëw rek euh, ci sëñ Modou ndax sëñ Modou moom xam naa dama lay bàyyi nga wax ak askan wi balaa may jaal ci aja ndax sëñ Modou newoon naa am nga gan te bëgg naa bu ma waxee gaay waaw day mel ni tiitre boo leen joxee titre ñam bi te gisuñu ko ci digg bi day am mu nur waaw waaw ndey aram li xew mooy waa ànd gësam laa invité woon ci suba laa woo Sidé Ndiaye ak mbaalu ñu caam ñu koy coordonné ñu jox ma turu ko ñuy wax euh, ndey jaxate nii mooy vice président ànd gësam mm-hmm. ma foog ñëw ñu confirmer ne ko daal na nga ñëw 16 h pour ñu mën a tàmbali à 17h. jusqu'à présent maa ngi jotuma ko ma jàpp ni mbaar bu fekkente ni ànd gësam dañuy gësëm ci amuñu argument moo leen tey ñëw mbaadu wala ànd gësam dañuy gësëm ci xay na luy gësam waruñu ko gësam. wala li ñuy gësam xëy na moomuñu ko. wala mënuñoo gësam. wala mënuñoo gësam ah. wala boog dañoo bëgg gësam ñu fi jàmbur. maanaam daal moo tax bëggoon naa mu toog fii mbir yi leer. ndax nag mënu ma nangu. di grève ci àll bi di grève grève yu méttee méttee métti. dëgg la ah, ci ñu invité la jox la temps d' antenne. une de temps temps wu télévision ni mu chéré alal ju bëree bëri la ñu jox la ko te ñu ñu mën a invité naa fii mais dañoo tànn ni comme que ñoom ñu ngi grève

Ndiaye ñu bàyyi la nga dalal sa invité madame Mbodj. Euh, madame Bigué Mbodj ñu lay dalal xam naa ne bouchon yi sonal na trop ndax boobu ba léegi mi may woo naan ma euh, Dakar kenn mënu fee génn ndax euh, ndax embouteillage bu bëri dégg nga sànq aram sunu titre bi ñu joxee muy l'art de donner la vie mel benn responsabilité bu bu difficile la madame Bigué. jërëjëf ñu ci invitation bi di fekk ci plateau bi di kontaan di fi fekk Sala Bigué. Euh, ñu xamante ca dante gu njëkk ga ba léegi macha allah euh, di kontaan fekk ñi ma fi ñi ma fi fekk yëpp di kontaan ci ci di leen nuyu di wax ni métier sage femme métti na méttiwul métti na ndax euh, li may wax ni woykat bi gën a manqué ci àdduna yuuxu bébé buy soogay judd moo ko dàq baat donc loolu rek dafa dafa war a junj walla dafa dafa doy ci naataable lan mooy liggéeyu sage mu am nag ay métit yu bari parce que sa chambre amul samedi amul dimanche amul guddi amul bëccëg amul tabaski amul tamxarit sëy yu bari tas waaye ñu nangu ko ndaxte góor ñi des fois duñu nangu bu bis jotee sa soxna war a nekk sa wet mu ne la damay liggéey ñu nangu loolu mu metti nag ci liggéey bi parce que ci li ñuy liggéey muy jigéen dafa metti mm-hmm. mais ci wasin tamit dafa doy waar dafa li ci li ci làmb ku fa demul ku duggul salle d'accouchement mënoo ko xam mhm. muy góor nag te muy jigéen ba tax na euh, muy métier boo xam ne ku ko bëggul doo ca nekk ku ko bëggul la ca war doo ko ca mën a def mhm. ku ca dugg ngir xaalis amana do ci yag wala do ci gis li nga bëgg. melni ci dugg bobu sax euh, madame Bigué parce que dañu gis ni léegi xalé jigen yu bari euh dafa melni dañ koy def euh, dernier recours parce que gis nañ ni euh c'est un métier très prisé en ce moment ci ci ci euh, xale jigéen yi ku ci am bac wala. xamatul wala amatul lu mu mën a def danaan xaaral ma dem defi métier sage-femme lol tam est-ce que du andi ben ben soxé ci sen ci sen liggéey bi. mën na indi soxé Euh, ndax euh, profession sage-femme nit mën na ko tànn dugg ci waaye nit mën na ci dugg ngir bëgg liggéey rek mais mu dem ba ci biir aussi mu bëgg ko boppam ba tax na euh, bare na ñu nga xamee ni naam dañu am bac bëgg débouché xalaat ni fii su ma fi nekkee war naa mën a am liggéey ma dugg ci waaye dootul le cas ndax pour illustrer ko ren ji certification pour am diplôme sage-femme 1300 candidats la ñu jàng ba pendant trois ans am seen trois ans pour mën un diplôme bu mën a légitimité exercée donc ce qui veut dire que ni processus pour diplôme ans formation jërëjëf sëñ bi. boo sëñ bi tam mën nga comprendre la. dañ ko gën a teengal ndax dañoo bëgg produit bi génn. bu ko neexee dañ ko gën a dañ ko a dangal dangal dangal ba gën a metti voilà ndaxte euh, dañoo bëgg léegi sage-femme nga xam ne génn na fépp foo ko affecté ci Sénégal. ci bis bi nga ko affecté. mu war a mën a commencé nag dab bakkan. dabu bakkan. bakkanu ko jigéen.

laago nga nekk nga nekk présidente association bu euh, sage-femme Sénégal yi ñu gis ni sénégalais yi wala sénégalaises yi jigéen ñi li ñuy kaas lu bëri euh, mooy accueil bi gis nañ ni parfois bu ñu demee ci yenn hôpitaux yi niñ leen di accueillir ñu ànd ak seen métit euh, ñu ngi koy naqar lu bëree bëree bëri lan nga ñu mën a wax ci loolu accueil je crois que moom mooy li ñuy wax naan Euh, sunu point bi nga xamee ni mooy pas point faible mooy li nga xam ni si la ñuy gën a euh, euh, def le point li li li li anglophone yi di wax focus bi dañ ko ci gën a def parce que école des sages-femmes bu mu mënti doon wala ki sage-femme bi génn ba pare ñu di ko defal formation continue on a toujours mis l'accent sur l'accueil ndax amul benn école amul ci module sage femme première année ba troisième année fu ñuy jàngalee le mauvais accueil. d'accord kon du sage femme mooy mauvais mooy accueillir bu bon nit des fois ci jikko wala ci yaram wala des fois ci xat-xat yuñ ko fekk parce que des fois nga jóge sa kër ni ma la waxoon. Mhm. nga war a tëj sa kër sa borom kër ni la sa tànk bu génnee ci kër gi ma may la. te yow nga xam ne da nga waatoon nga ni lu mu mënti lu mu ma jaral dinaa liggéey kooku même bu yeggee liggéey yi. day ànd ak pression. dina ànd ak pression boo nga xamee ni yow miy ñëw si moom tamit danga naan ah ñii de danoo yabaate danoo xamati. Uh-huh. ngay takku ba dëgër bu la nee cere ji saf na laalo sax nga ne ay ay ni yow donc ñaari confrontation day am. parce que kii ñëw préparé wu ni man kat tey jii ñii dégg naa ni nu mel waaye tey la ñuy wan wax ni tey la ñuy xam ni man la tey la aujourd'hui uh-huh. ni xale wax. yow nga jógee ci benn stress yegg si ñëw fekk salle d'accouchement fees del amoo foo tëral malade. mais nga xam li nekk daa hôpital Dantec mais est-ce que est-ce que loolu tamit yéen du bokk ci seen formation. moo tax ma ne la formation bi léegi dañ ko gën a teeŋa. c'est ça en fait ñàkk yërmande encore une fois. C'est vrai que moi, je suis la présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. Il y a la def manek maîtresse sage-femme maternité de mag du Sénégal, l'hôpital de Dante. Il y a la dimbalé maman liguey fa 1900 janvier 87 lan ma fa affecté ba fi ma toll. Je crois que ci plateau bi bari na ñoo xamné xeyna dal moy lool. Du dogu fa moy lool. C'est pour vous dire que ni tay ñoo fay nek di fa gor gor lu lu mëne di dégg nak wax yi di xëy di ko sóoraale suba su suba soo xëyee di dem di liggéey da ngay wax boobu mhm. ni man kat tey su ma demee naa góor góorlu ba lii ñu nuy waxal lu mu metti metti naa ko bàyyi xel di ci soññ gune yi moo tax nag sage-femme yi ñun dañuy daaw dañu def journée sage-femme jël accueil def ko tem bu am importance discute si ak gune yi mhm. ni leen yëf yi metti na te maternité képp ku fay liggéey di doon jigéen sage-femme ngay tudd ak loo mën a doon docteur sax bu nekkee ci maternité muy jigéen suñu ñëwee sage-femme lañ koy jëkk wax balaa ñuy xam ne gynécologue bala donc des fois nga gis nit ñëw yuuxu gynécologue bi wax ko wax nga ne waaye yow gynécologue bi ngay waxal noonu mu ne déedéet dama foogoon sage-femme mhm. pour vous dire que dans la croyance populaire dafa am benn attitude bu nit ki di ñëwee ci sage-femme boobu mhm. ba tax na ñun tamit dañuy tàggat suñuy gone tàggat suñu bopp ni la nit ki nii la nar a ñëwee ci ñun waaye su ñëwee yal nañu yàlla may dal bu toll na danañ mën a naxanteeg moom ba mu wàcc ndax mm-hmm. bare na ñuy ñëw mm-hmm. di wax man kay maa ngi jéggalu ndaxte bi may ñëw nangam ak nangam ak boo waxtaaneek ñoom mu mu mu dal mais il arrive nit nit kese la nga toll ci moment boo xamee ni nii rek buñ la koy def musiba am bu ko defee ñu ne ah moom kay lii leen waxoon mu doon musiba bi ñëpp di bañ solo ah, en tant que présidente nationale des femmes du Sénégal mais est-ce que yéen a ngi am ay écho maanaam ay retour par rapport ak seen ay malaat ndax damay dégg jigéen ñi di ko wax naan kët des fois ay xas ay mbéj ay yuuxu dem banaan la sax yaa ko sëmbi woon ah ay baat yu bëree bëree bëri loolu est-ce que yéen seen kuréel da ci bàyyi xel am na ñuy superviser ndaw ñi wala da ngeen di toog rek wax bàyyi noonu du ngeen dem au fond pour xam exactement li xew ba xam ñi ñëw ci yéen li ñuy wax lan moo ci am ak lu ci amul ak lu ngeen ci am ay saafara loolu lu ñuy saytu fu nu toll la en tant que association des sages mais également en tant que maîtresse sage-femme dañ koy fu nu toll ñu ngi saytu loolu mais pour dëggal le le ëmm bi nit ñi sage-femme yi am pour fexe ba mën a réguler suñu pratique

li ñuy wax ndax dëgg la bu ci dëggee bu dëgg amee ñu xool nag nan lan koy mën a bu jaree daan indi daan bu daree dem ba sax ñu ne dañ lay daal di rajee ci kooru sage-femme ñu rajee de ci kooru sage-femme mooy wane ni ñun sage-femme yi fa nu jëm ñeme nan fa parce que xam nañu lan moonu war xam nañu lan moonu ni liggéey te xam na nañu lan lañu bëgg ci suñu profession ba lépp lu nga xamee ni daf ko naa a xajamal dañu takk suñu sër ba mu dëgër fas yéene nag jànkonteeg lool moo xam nag muy ku bokk ci ñun muy sage-femme moo xam mooy ku nu ku nuy liggéeyal moo xam ñiy ñëw ci ñun moo xam tamit sax ba ci ministre de la santé ba ci gouvernement bi moo tax sage-femme yi di nga leen gis fu ne ba ci ànd gësëm bi sax sage-femme yaa ngi si ah, non dinañ ñëw si kanam sëñ bi balaa ngay dugg si ànd gësëm mayal mam jaar man moom samay xarit la parce que euh, peut-être yàlla moo ko def parce que dafa bëri ay handicapés yu nga xamee ni samay xarit danu yàlla de am na am na si kenn ku nga xamee ni euh, tur bi daf may xaw woon dafa nekkoon ci ci puus benn dénk rouleau yow yooyu noonu doon toog euh, booru cathédrale hmm. yàlla def mu ëmb taawam loolu mu ñëwee hôpital Euh, suñ ko nee euh, na ko gynécologue yi seet parce que moom handicapé la mësta nangu ku ko seet ku dul man mhm. yàlla def ñu di ko suivre di ko suivre di ko suivre ba jour accouchement maara day taali césarienne bi condition yi mu nekkoon tax ba elle n'a pas pu supporter césarienne boobu mu faatu ci jour boobu mhm. terewul yàlla dimbale nu ba doom ji euh, génn ci mu amoon ci taawam bu góor boobu donc muy moom muy ñeneen parce que bare na ay handicapé bare na ñoom ñoom ndayab sax euh, bare na Mbaye Ndiaye donc ñoo ñëpp si ay nit ñu nga xamee ni le suñu suñu ay dem nañu bu nga xam ni weesu nañu ay relation wu malade ak sage-femme dañuy séq li nga xamee ni même bu xew jotee dañuy demalante ay xew ndaxte dañuy fekk dafa fekk muy hôpital donte hôpital bu nga xamee ni moom mooy hôpital indigène indigène yëpp foofu la ñuy ñëwee te néew doole bi yëpp foofu la ñuy ñëw ba tax na bi ñu tëjee diir fukki at ak ñett ñoom dañ daan ñëw di visitu si ñun mais bu matu jotee ñun ñëpp dañuy dañuy jaaxle hmm. parce que dañu naan ñii tey jii fan lañu war a mën a yóbbu leen foo xam ne dinañ leen fa mën a jàppale hmm. mais nag encore une fois euh, relation bi nu am ak ñoom handicap bi du feeñ lu dul ci bu waree wusin parce que handicapé bi condition d'accouchement ça mhm. dépend ci type d'handicap yi day jafé ak nga xamné am ko mais su ko du relation ki handicapé parce que man personnellement dama ni jigen ñep ñoo yam ni ñep ñoo yam dignité mhm. donc ki nga dafa ci koy sa niveau en relation mais nga traitement de faveur mais dañ koy gën a surveiller plus que ni ñuy xam ne euh, sànq yaa ngi wax euh, nii léegi concours sage-femme dañ ko gën a mettil est-ce que on a suffisamment de sage-femme wax ci Sénégal euh, ndax am na village yoo xamante ni c'est reculé gisuñu ni conditions yi war pour que jigéen ñi mën a accoucher normalement ma nga fa est-ce que du dafa am sage-femme yoo xamante ni doyul pour ñu mën leen a yóbbu ci village yooyu ñu mën a dimbali yooyu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi foofu. jërëjëf euh, parce que dañu wax ni euh, soins obstétricaux et néonatal d'urgence mhm. ñu ni ci soins yooyu dañu ni jigéen bu ne dafa am droit wu à des soins de sage-femme jigéen bu mënti dem ñu loolu nag ñu dugg ci mbirum équité parce que jigéen bi nekk ci àll ba ak jigéen bi nekk Dakar ñoo yem sañ-sañ mhm. ñoo yem bëgg-bëgg ñoo yem ay droit yu nga xamee ni état du Sénégal daf ko war a sàmmanteeg ñoom pour ñu mën a am soins yu yu war léegi nag bu njëkk sa femme centre de santé la daan yem mais dañu gis ni mortalité maternelle et que euh, UNFPA muy benn agence bu nga xamee ni ñoom toujours si lu ñuy liggéey mooy nanu investir si sa femme yi suñu bëggee ndeyete ndey ak doom wàññeeku parce que léegi étude yi daf ko wane parce que demoon nañu un moment ñu ni du soxla sa femme nanu wut ay matron nanu wut ay ñeneen yóbbu leen ci all bi mais dañu ni bu nu bëggee neete ndey ak doom wañé ko ci Sénégal wala fep ci aduna al faut que soin de sage-femme ñu mënte jot ba taxna légui poste de santé yépp ci Sénégal sa femme da fay mëna nek mhm. et que dernière étude bi sonu def ñu révéler résultat yi dama ci kontaan parce que dañu doon wax yeen sa femme yi nanguwu leen dem ci ci ci àll bi surtout mais résultat yi dafa wané ni les trois quarts des sages-femmes sont dans les régions et qui condition humaine. parce que dans les trois quarts les deux tiers de ces sages-femmes là quest recruté voulez? comité de santé di mm-hmm. ñi bu bëree ba bëree ba bëree ba ba bi dañuy mm-hmm. ñu ko loi marché bi sages-femmes liggéey bi et la demande la demande est assez importante alors que l'offre dafa ndaw donc sage-femme yi léegi fépp foo nga xamee ne yaakaar nañ fi bu ñu fa demee même bu dee trente mille francs par mois ñu nga fay dem. ngir rek dimbali jigéen wax plateau technique bi. parce euh, que disponible na foofu noonu pour ñoom it ñu mën a def seen liggéey li parce que ni poste de santé yi léegi dañ fay yóbbu sage-femme ndaxte wàññi ndeetele donc pour relever le plateau technique. donc parce que bu njëkk infirmier moo fa doon nekk ak ay matro léegi nga dem ci àll bi lu mu sore sore foo dem. parce que euh, professeur Eva Manicol ancien ministre de la santé a fait une affaire le est gagnant dans chaque poste de santé au Sénégal pour imprimer un sage-femme commencé recruter di JICA mhm. dans les régions dans la région de Matam Nous ngi ay nous du am courant am na sage-femme bu ma ni moom guddi ba guddi lay mën a sangu fa mu ne amul amul douche léegi paan la jël bu xaaree ba mu lëndëm mu di fa sangu pour day xaar ci biir lëndëm bi mu sangu ci diggu maternité bi parce que fa mu nekk sax amul fu mu mën a sangoo ci biir néegam mm. mais sa femme yaa ngi foofu di toog juróom benni weer ba huit mois du mu am salaire yaay nekk fa baay nekku fa kenn nekku fa mm-hmm. ñu continuer di fa liggéey parce que kenn ci ñoom abandonné gul poste du du mbirum grève de ndax ñooñu quoi qu'il en soit même bu fekkee ni mhm. plateforme ànd gësëm loolu daf ca mbokk ñun association des sages-femmes dañuy gën a ñaax suñuy ñoñ ñi leen dañ leen soxla fii mais yéen a ngi yéen a ngi xeex euh, pour ñu ngi dem parce que association du mhm. syndicat association plaidoyer la mën mhm. waxtaan la mën soññaate convaincre bailleurs yi ak ak ak ak mini euh, gouvernement bi. Mhm. ñu ni ñii kat comme dañ leen a soxla ndax Sénégal dafa am fu mu nekkoon ak ay nawleem ñu xaatim fa dara moom mooy 2030 dafa am ay objectif de développement les ODD ñu war ko atteindre parce que OMD yi rate na nañu rendez-vous ba. te pour que ñu atteindre ODD boobu. Mhm. dañu war a investir bu nu bëggee ni pauvreté bi ñuy wax. pour mu mën a am pauvreté il faut ndeete ndey de parce que jigéen ñi ñoo yore kër yi léegi mhm. Sénégal Dakar ba fong limi góor gu mel yaa xam ñun ñoo yore kër yi dafa leer jigéen ñi ñoo yeewu fajar di dem nga tase ñoom ci mbedd mhm. waa jigéen boobu bu loroo kan moo yore njabootam kon pauvreté dina fa am xale mhm. yooyu duñu jàngi analphabétisme bi nekk fa xale yooyu seen wérgu yaram du mën a am donc santé bi ñuy wax du baax xale yooyu duñu mën a jàngi éducation bu ñuy wax pour tout du am donc pour que ODD quel que soit le type d'ODD mon environnement mon funek, al mhm. fokk ndeyte ndey ak doom mu dañ fi al fokk ñu mën investir ci ñinga nga ni ñom ñoy jappalé nit ñi ginnaw yalla ba nga xamé ni dañu mëna sauver bakkanu jigen yoy ndax dañu xam ni ëllëgu Sénégal jigen ak ndaw yi ñoko ko mhm. mhm. wa dafa melni soxna sim machallah jambar nga gis na liggéey beeg xadar bi ak yéene bi ci askan wi mais fallait yi gis nañ ne ànd gësam mi ngi ci 16e plan d'action bi mu semba ah, digganteem ak nguur ndax yow militante ànd gësam nga d' abord. waaw. <laughs> voilà. nee na légui association. bokkul ak. syndicat ah, ànd gësam. mais ànd gësam mais en tant que sage femme d' état. c' la ñuy bokki ànd gësam. Mm-hmm. mais du ma fi toogee en tant que association des sages femmes. Mm-hmm. donc association des sages femmes il est apolitique. ouais bokkul ci syndicat. Mhm. bokkul ci dara. mais yow en tant que ah, la personne bokk na ci ànd gësam. Hmm? lan mooy plateforme euh, plateforme revendicative bi ngeen teg tax ngeen àgg ci fukkeel bi xeex ak juróom-benn pour ñu xam seizième bi ngeen toll lan mu wund parce que dañ cee amoon ku ñu ci war a invité xaw ma dafa daw xaw ma lu ko téye. Hmm. Ah, xaw ma mën naa am dafa lu ko hmm. mais euh, tey jii euh, peut-être que man par. par conviction wala par par discipline lu nga xamee ni aw ma ci sañ-sañu kàdd duma ci naan mhm. li tax ñu yegg ci seizième plan d'action am na ñoo xam ne seen kàddu moo gën a mën a daw parce que ñoom ñoo nekk ca biir ba ñun danoo nekk ci ginnaaw jiital leen di ànd ak ñoom. mais li tax ñu gëm femme am xëy na yow si sa corporation loo xam ni gis nga ni war nañ ci indi saafara ba tax. saafara bi ci gën a indi moom mooy li ñu doon wax parce que yéen seen bopp yéen a ko waxal seen te bi ma nee JICA ici ni sage-femme yaa ngi ci àll bi juróom benn weer. Mhm. huit mois amuñu salaire rek ngeen ni ànd gësam. parce que ànd gësam la ñu gisoon pour ne ko ñun kat mhm. lii jafe-jafe bii la suñuy ñooñ am. Mhm. léegi nag comme yéen yéen a mën a am kattan ak doole pour mën na koo xeexal. ñun wax rek la ñu mën jàppale nu ci loolu mu deñ beneen ba ñu nekk dans les hôpitaux. hôpitaux yi ñu ni dañu war a am statut spécial. ñu ni nekk hôpital Dantec xeexoon fa ba tey jii ñu wax réforme hospitalière dëggu fa samp fa ba tey jii ñu ni xëy na am na njëriñ bu mu mën a am mhm. ci santé askan wi ñu ni ña fay liggéeyee dañu war a am statut spécial mhm. parce que euh, dañu dañu am benn benn euh, statut bu hybride bokk nu fii bokk fii dañu nekk ci diggante bi te pour que liggéey bi mën a jaar yoon mhm. les travailleurs des de EPS dañu war a am un statut spécial ñu xam nan lañ leen di gérer parce que ñun dañ fay nekk ñi nekk ay universitaires ñi nekk ay fonctionnaires ñi nekk ay personnel établissement bokku mhm. bokkunu nit ñuy li ñu recruter mhm. mais bokku bokkunu aussi li ñu tënk ba tax na mën na indi ay sooxe mhm. ci biir liggéey boobu mais ci biir loolu xam naa duma xus ak yow ci mbirum syndicat bi ak xam naa taxul laa jóg tey mais gis nga gouvernement bi le ministre Abdoulaye Sarr dem na ba menacer sax que ni mën naa am mu comp salaire yi pension sur les salaires est-ce que parce que moom fi mu ko teg nee na li ngeen doon revendiquer lu ci baree bari bu dee accord lu ci baree bari am na ay avancement yoo xam xamante ne bi moom significatif la lan moo xew exactement ba ngeen di forcer pour dem politique daf cee laxasu ndax fi dëgmal 2019 élections yi tax ngeen bëgg a poñe nguur gi foofu wala exactement lu xew yaakaaruma mu doon mbirum poñe parce que su fekkoon mbirum poñe la ci sama xel bu gàtt duñu commencé ni nan def service minimum nan def les urgences parce que moi en tant qu'association des sages-femmes dañuy interpellé sax Mballo Dia Thiam yi secrétaire général ni ko maternité dafa sensible te urgence la Nous fexe ba fàttali nit ñi ni salle d'accouchement matou qui mënu koo tuxal kenn mënu ko xaaral ba suba kenn mënu ko xaaral ba ci kanam mm-hmm. donc loo xam ne bu xasee ni bërët rek tant que yeggul fa mu jëm jàmm du am donc ba nga xamee ni loolu wane na tax ni ñoom ñu xam ni lii kat urgence la ñu ngi ci mën a di ci toppatoo di ko di ko di ko gës donc bu fekkoon ne mbirum politique la wala mbirum poñe dañuy xëy rek bankandoo ñëpp seeni loxo ni kenn bu mu faj su boobaa musiba naaru laay ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi koy ñaan ndax kilifa ñaan nga mën a am ak moom ñun en tant que association des sages ñaan ko ne ko lu waxtaan réglé wu xët-xët ak xëccoo du ko dindi mhm. moom kilifa la mhm. jox nan ko wàllu kilifaam mhm. naam na nangu toog gën a toogaat ak gën a waxtaanaat ndaxte nit ki nga xam ne danga koy dàq su demee ba sës moom day gestu rek attaqué waat donc compab salaire gëw ma ni mën na régler tax ni ñu delluwaat xam nga lu tax de solution benn xale def ma ni daa ñun amuñu salaire ndax lii ñu nuy fay fukki junni par weer ñu nangu di ko liggéey bu nee nan ko dagg te toogoon nañu juróom benn weer jotuñu si wala toog nañu ñeenti weer ñetti weer jotuñu si ñun dafa mel ni kenn mësunoo fay kon moom day dagg-dagg bi day dem ba mujj parce que dafa génne not circulaire ni ñi nekk ci hôpitaux yi ñi nga xamee ne fonctionnaire lañu nanu dagg seen motivation bi hôpital bi di leen jox ñi nga xam ne hôpital la leen fay ñu dagg seen ab salaire dagg seen ab motivation mais nag je crois que loolu bu doon sama sago bu dellu si ginnaaw parce que day gën a yokk xar bi karaw ndaxte ki nga xam ne li mu am doyu ko dangay boole day yemale ñàkk am ak ñàkk <laughs> <laughs> boor la rek même bu la reel ay salaire arrière mm-hmm. boo liggéeyul weer ba ca topp ci man boog waroo fay wala xam nga balaa maa ñëw foofu sax damay. kontaan nga ñëw si liggéey waaye bul ñëw si moom la personne. voilà liggéeyu sage-femme. non moom liggéey laay ñëw xam parce que moom nee na dalaa xaw. sama non <laughs> mu nekk Dantec. Mhm. li mu fa am ci ay turandoo kenn xamul nu mu toll mais li ko ko may mooy yërmande ji. Mhm. parce que tamit nit ki. dañoo ñëw man de Dantec laa juddoo si association des boo demee sax de boo demee jaar nga ci ay loxoom de. non man fa <laughs> vraiment muy nit ku baax am fa ay turandoo ñu doon nit ku baax. Mhm. koo xam ni liggéeyam amu ci amu ci lu muy amu ci dara amu ci lenn loo xam ne defoo ko ngir yàlla mais li gën a am solo ci réew maternité Dantec tey ku gis na mu mel xam ne état bi war nañ ci jàpp parce que jigéen mooy indi nit ci àdduna boo defaree benn jigéen defar nga société boo defaree benn góor benn nit nga defar nit soxnaam dina ëmb boo bu waaj a deewee du tere doom ji judd waaye mardital yaay ji bu loro doom jooju kon jigéen mooy société. fan fu nga xam ni nag fa la jëm ki nga xamee ne tey jii toll na ci mat mu dem fa liñ naan plat bi njëkk ci nit plat bi nit di dal mooy kanam accueil bi. foofu nañ fay gën di taxaw. accueil bi moom léeg-léeg sax nga gunge sa soxna muy dem wala nga yóbbu sa doom wala nga yóbbu sa jabar muy dem. léeg nga fekk fa ñoo xam ni nag ñëpp nag yemuñu. dëgg nga fekk fa ñoo xam ne nga xam ni seen biir kër sax ñii la ñu mel. moo tax que foofu waruñoo tànn ñi nga xam ne ñoom lañ far teg parce am na loo xam ci diplôme moo am na loo am na loo xam ci nit la ñooñu nag est waruñu leen di tànn ña ñuy teg ci accueil ba ñu xam ni ñuy waxee ak nit ki xam ni ñuy doxale mën a muñ am esprit de dépassement man loolu laa yaakaar ne war nañ ko ci mën a dolli bi ci des tamit ci ñoom ñi nga xam ne nee nañu lañu leen di jox sax du salaire dara bi ñëw cinquante mille nga dema persa luy xam nga ne sax loolu salaire léegi nag loolu ñu lay jox noonu la buñ ci dee compaat lan lañ ciy compaat mhm. loolu matul nga di ci compaat amul solo mhm. li mu wax rek Abdoulaye Diouf saar je ko ne très bien nit ku baax la na gën a am yërmande rek xam ni boo bootee bugg xaj baw la mhm. boo waree yërmande yërmal doole yërmande ko tax a jóg na gën a delloo si xelam toog waxtaan guerre mondiale ba mu bëggee mu jeex dañoo def benn tour de table toog ñëpp waxtaan mu jeex lu raay mayul wokk du ko may. juste rek euh, dama bëggoon a def benn question bu mujj. amul benn problème may naa la benn. <laughs> alors euh, c'est juste pour demander euh, sage-femme yi est-ce que am nañ capacité defal jigéen ju wérul bi benn suivi bi comme liñ naan gynécologue bi mo am ben xarañteef boo xamante ni parce que seen liggéey dafa xaw a dafa xaw a mbéngoo ndax ki nga xam ne moo di gynécologue obstétricien bi dafay rawale comme yéen ni ngeen di rawale mais yéen est-ce que am ngeen capacité pour def suivi bi koo xamante ni dafa ëmb juróom benn ni mu ni mu ëmbee ba ni muy bi. Mhm. yéexee bon mucc li ma ciy tontu moom mooy li ma étude bi ma la waxoon dama ni la au niveau de ICM qui est la confédération internationale des sages-femmes dañu wax ni quatre-vingt-sept pour cent wu soins de maternité sage-femme a koy def donc pajub pajub jigéen suñ ko xaymaa téeméer bu ne juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñaar liggéeyub sage-femme la loolu rek doy na tontu ndax sage-femme yi dañ leen tàggat ci théorie jàngal leen ñu jàng leçon xam lan mooy lan xàmmee kan mooy kan waaye ñu tàggat leen aussi ci pratique ñu dem ci terrain bi di liggéey di xam sage-femme mën na laa xool yow waxuma la sax ma seet la waaye yow ajara ma xool la rek tey jii na ah ajara yow ii <laughs> taabige yow dimbale ma de yow nga taabige ah. nangam tontu bi jeex na parce que ki nga xam ne deful dara soo ko ne yow mii danaan la lan la waaye ki commencé di dawale ay bëtam naa la yow mi nangam ça veut dire que am na koo xam ne dama naan man dama ragal sa bët <laughs> donc sage-femme dafa dafa yàgg si liggéey yu sax muy lu muy liggéey suba ngoon guddi bëccëg mhm. ba nga xamee ni bu jàkkaarlook sage ndaw si dina xam ndax balaa mu koy seet jàngal nan la ci xool ka ndax moom ëmb na wala ëmb jàngal nan la si tiim ko rek di ko xool nii parce que buy ñëw nga di ko xool nga tiim ko nii dafa am ay mandarga yu nekk ci jigéen yoo xam ne soo ko xoolee balaa nga koy seet yegg ci moom danga danga am njort kii kat peut-être jigéenu wéro ñu ni jàngal ñu naka la ñuy saytoo jigéenu wéro mu am carnet mu am ay mandarga yu ñuy wax ni kat bi sàngam wala bu tolloo ci waxtu bii nii nga ko war a def jàngal nu ba ni jàngal la ñuy defee échographie parce que nit dafay dox ak temps bu njëkk ñun mag ñi da daan touché rek sa ñaari loxo yi mën na laa wax ndax nit ki seex la ëmb su dee teel nga ko gis si ñetti weer yi jëkk yi wala ndax benn doom la. yéen a waaye léegi <laughs> jamono day dem te dañuy tolloog gune nekk ay analphabète léegi comme enti gi dañuy wax ñu ngi ci jéem a mën tuuti ba tax na ak échographie bi sax sage yaa ngi def échographie am na benn pays bu ñuy wax Madagascar sax ñu ngay forme sage-femme yi pour que ñu nekk ay aide opérateur parce que sage-femme ci maternité rek lay liggéey sage-femme ci jigéen rek day liggéey te nu ñu koy tàggate mu war a mën a taxaw nag ba nga xamee ni du remplacer gynécologue de waaye lépp lu nga xamee ni moo tax nu ñuy tuddee les tâches déléguées dafa bëri tâches yoo xamee ni ci dëkkub nasaraan yi dañu ni gynécologue doy na fa gynécologue rek a koy liggéey mais si suñu réew yii liggéey yu bëri yoo xamee ni xarañu sage gynécologue la léegi dañ ko dañ ci tàggat sage yi moom mooy les compétences déléguées yi nga xamee ni dem wasin yi ci matu bi ci yëpp daal macha allah madame euh, Bigué Mbodj loo si dolli nekk syndicaliste leer la présidente de l'association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal mu doonoon ganu ki nga xamante modi moo Ndiaye ci sen métier mu len di jox rendez-vous rek jeudi prochain ak benen métier bo xamante euh, sa su nek rek di ngeen ko mën euh, découvrir ñu jall ci benen événement bi nga xamni mom lañu la ñu yor tey.

mu am des antennes régionales dakaar rek moo am ay cellules départementales cellule départementale Pikine bi ma mbokk di manager général keroog bi ñu koy ubbi ministre bi de la culture nekku fi délégation bi mu yebaloon man ak Saala Bégué mii la <laughs> moom xam na 2010 ñu def ay activités différentes activités ah mais am na loo xam bu ñu ko amee dinañ ko wax wax suñuy nit Le Sénégal ñëpp am partenariat ak OIF. l'organisation internationale de la francophonie. avons yebal drame éducation pour nous nous tàggat sunu théâtre en technique d'expression française dans tous les comportements du théâtre. mise en scène d'une pièce de théâtre jeu d'acteur mémorisation d'un texte. Euh, de théâtre en langue française. Mm-hmm. parce que nous outil bi ñu mm-hmm. pour le théâtre qui standard international. Mm-hmm. parce que vous vous faites, Arcot subu pikit def na ba ay tournée nationale. Vous nañ ci un festival yu bari. États-Unis barki démb la fa euh, Memphis président de l'État, dem le Sénégal mais nous outil utilisé ñuy utiliser lu français la kon dafa sunu sunu artiste comédien yi ñu mën a am cette maîtrise d'écriture booy def scénario par exemple da ngay soxla bind nga xam ci anam booy bind ci loolu lanu francophonie ñu ngi ciy topp depuis deux ans francophonie accepter ñu sunu projet gunge ñu mu tànn moom francophonie ñun tànn ñu drame éducation c'est le centre international de théâtre francophone en Pologne drame éducation francophonie moo leen tànn ni leen dem leen Sénégal ngeen dem Pikine arkot su Pikine ngeen tànn fa fanweeri ndaw ñu tàggat leen pendant dix jours parce que drame éducation ñoom ñoo am benn projet bu tudd dix sur dix dix acteurs ñooy bind dix pièces de théâtre pendant jours avec dix comédiens sur 10 pages si vous tapez internet drame éducation vous avez am information Nous avons loolu moo Sénégal mhm. Nous sommes li décembre au 20 décembre complexe culturel Léopold Sénat. Senghor sunu siège hein. chaque lundi nous sommes 500 artistes mais 500 nous avons fait la sélection bi 30 mën pour bénéficier de la formation. xam nga tey au moment bi may waxee yow un rek

mais bu suba ñun ñu mën ko def Mali mooy ñu jógee ba Pologne pour pour def si ko dans la sous-région mais ñun ñoo koy jël nekk léegi les formateurs waa démultiplication et d'ailleurs dafa bokk ci projet bi 30 yooyu suñu paree dañ koy démultiplier on tend vers le professionnalisme dans le théâtre am leen occasion ngeen ñëw Pikine euh, sama nijaay xam na moo bàyyi ngeen ñëw pikin ngeen xool ce que nous sommes en train de faire pour ngeen xam ni théâtre mu ngi jógee ci activité bo bo kii non di dem ci professionnalisme moo tax yooyu uti na notamment da nga koy soxla mhm. et pas n'est pas partenaire de la francophonie qui veut hein c'est clair ah, donc loolu mënuñu ko def nag laaxatu il faut ñu wax ko mu expliqué <laughs> ah. ah. waaw yéen président Leyti rek euh, ku ku xam euh, théâtre Sénégal yaakaar naa dégg nga turam te liggéeyam. Euh, encore une fois dañ koy rafetlu man personnellement jot naa suivre ko ba kaolak ci festival bu mu doon participer donc xam nañu potentiel am et derrière c'est un meneur ndax euh, même bu nit yi àndee mm. gis nañu nu muy doxalee yaakaar naa ni euh, loolu encore une fois c'est à promouvoir ndax yu mel ni mm. day tax rek ba tey ñu gën a gëm réew mi wane ni fu ñu toll di wax naa dañu bëgg ay salle de cinéma et autres mhm. il faudrait également que les acteurs am le potentiel nécessaire pour mën a occuper seen yooyu nga xam ni nañ ko euh, taxawal mhm. euh, per Sala rek ñu am lu mu sànni ci seen événement wala yow ci formateur yi nga bokk <laughs> Père Sala des fois mu may ñu fi dara de wala bokkul arcos xam nga xam nga arcos bu Pikine moom bi ñu ko fay bi ñu ko fay ne en 2010 dafa fekk pratiquement may may may nekk a cheval entre Canal Info et et donc su ma wàccee ci rajo bi damay ñëw bokk ci affaire bi. Canal Info la wax de. voilà Info. Ah, ah, ah, xam mu doon lu yàgg. donc ministre de la culture Modou Bousso lay moo moo nekk ministre de la culture à l'époque moom mii sama jarbaat la. Mhm. moo tax euh, Arcos bu Pikine li mu wax léegi rek. il faut ngeen ñëw découvrir parce que nit mënut a nettali boppam damaa dëkk Pikine bokk ci affaire bi wax moom li wax rek doy na <laughs> mais dafa fi may li may dolli rek. mooy tey ni ñu mënee seetaan théâtre ivoirien yi nga xam partout dans le monde ni ñi dañ koy jariñoo mhm. ci langue française Sénégal war nañoo toll foo xam ne nag ci niveau boobu mais ñu la plupart suñu comédiens yi ku ci làkk sax français da ngay mel ne dangay def def fu kaw kaw maanaam làkk boo xam ñu baal ma kaw kaw laa yabuma kaw kaw yi parce que kaw kaw laa ngaay mexe laa dëkk mhm. mais dafay mel daal dañu naan kii déggul tubaab daal day def français boo xam français bu xajam la léegi nag il est temps ñuy làkk français comme français comme ni ñuy làkkee olof comme olof def ay séries xam ni partout dans le monde nit ñi dañ koy seetaan foofu la impact bi foofu la gën a nekk Anday Aram Touré jërëjëf <laughs> Père Sala Bigué euh, wax léegi ne dafa am message bu <laughs> bu ma sama yaay yónnee ndax nee na ma ne si plateau bi sa la ah ta Aïcha sage mu ngi koy nuyu Taïcha sama sama magu yaay la donc euh, moo tax sànq bi ma naan foofu laa juddoo <laughs> maa ngi réew a wax dossier <laughs> bu ma sama yaay ñun ñuy seetaan te moom euh, sage la mm. donc euh, xam naa ni moo tax mu xàmmee la ba euh, di la na mu ngi lay ziar di ci ziaraale képp koo xamante ne rek sage-femme la persal dama lay bàyyi mm. nga àggaleek avis du jour waaw avis du jour xam nga benn yonent nit ku baax mos na yónni benn saabaam ni ko dama jënd li ma li gën ci marché ba saab bi dem jënd xol mm. xolu gileem mu toogam yaa ni ko dama jëndal ma la gën a bon ca marché ba saa bi dem jëndaat xol indi baax la xol mooy baax lépp baax xol mooy bon lépp bon bu gisee moom Abdou daan wax nañ leen tàppe xol yi waaw sens boobu lañ jëm nit loxo mën na dagg muy dox muy dox boppam mën naa toj muy dox waaye xol ba dagg na ma ngay dox mën nga ko gis nga ko gis wata góor gu baax nee na ma àdduna kursu la xel yi ñooy dawal waaye xol yee freiné ku soon tontu sa kër nday Arame bon nuyu bi dama lay bàyyi nga waxal ma ko nuyu. waaw kon jërëjëf def rendez-vous suba incha allah. production DTV ñoo lëkkaloo ngir andi leen film bu bees bu tudd bés bés film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21 et heures